KP moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show jëf mbokku téléspectateur Walf TV ak solution TV solution info ñëwaat nañu beneen yoon ci takku show tey nag comme niñ ko baaxoo di defee rek say su nekk dañu ànd ak Omar Bun Xataab Gueye ci li nga xamante ne nii moo di lu ay di njàmbat buñ ci noppee ma ànd ak yéen ci actualité du jour ginnaaw bi loolu dañu dem ànd ak suñu ay sponsor leader yi nga xamante ne ni ñoo ñuy accompagner say su nekk ci émission bi di takk show buñ ci noppee daal ak li nga xamante ne ni moo ci victime du net ak son yi bu Diop Modou Diouf. jërëjëf Modou Diouf euh, Omar Boun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di nuyu ñëpp di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu boroom ak kàttanam di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Euh, di nuyu Assane Mesere bu moom Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ñu ngi koy nuyu tey xàmmee mu ko Assane. Mm-hmm. Euh, di ko nuyu baax di nuyu son bu ñu ngi koy ziar bu baax di nuy El Hadj Ndiogou Meng saa mm-hmm. di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm comme ni nga ko waxee ci li ay di jàmbat. Euh, ñëpp xam nañ ko mooy Ousmane Sonko mi ñu jàpp yóbbu ko ca Sébikotane ak parti bi ne di Pastef ñu ne tas nañ ko doon ay dogal yoo xam ne. bi ñu tëjee Ousmane Sonko ginnaaw gi lañ ko jël na tasan parti bi loolu nag ku ne dina ci indi xalaatam ak njàngat loo xam ne am nañ ko ci euh, dinañ ci dikk ci kanam di nuy ñëpp rek di ziar ñëpp di nuy di tey bu Niass Cheikh sàmba Ka ak euh, waa Kër Massar yëpp euh, ak réew mi yëpp mais aussi di masawu réew mi yëpp. Mm. di ñaanal Cheikh Bara Ndiaye fa mu ne mu génn fa ci jàmm ak salaam ak képp koo xam ne rek. yaa ngi ci loxo ba ci Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaanal fa mu ne mu bañ fa yàgg dellusiwaat ci jàmm. Mm-hmm. Euh, dikkaat parce que nag xataluñu ci <laughs> ci dëkk bi ah ba mu war a dem kaso. Mm-hmm. kon mi ngi noonu kon euh, di gërëm ñëpp rek di leen sant ci kanam ñu sóobu ci waxtaan bi. incha allahu yi mm-hmm. léegi léegi lay doon euh, lu ay di jàmbat son yu bu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma jigéen di la ñaanal yàlla jàmm. di am mbégte jàkkaarloo ak yow. nuyu xarit Serigne Sidi moom Serigne Abdoulaye Mbacke Alaaji Sanjoogu Mbeng nuyu Omar Bon Khattab Gueye futur maire de Kër Massar nuyu euh, Baye Assane Mesra meilleur chroniqueur 2022 2023 2024 bi na xamaguma luy xew nuyu Mame Biram Wacc euh, mi nga xam ne mooy chroniqueur du peuple euh, nuyu la baax <laughs> ma jigéen Diop di ñaan yàlla yàlla na yàlla wallu waa réew mi te wallu réew mi waaw yàlla na yàlla wallu réew mi te wallu waa réew mi Mhm. amin yaa bi son bu jo parce que loolu rekk la ñu soxla jàmm ak salaam bu sax dàkk yi maa ngi lay nuyu di la ma jigéen ñi am mbégte kontaante ci yow. Mhm. di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides mu yàgg bi ak wér. Mhm. waaye di nuyu di sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacke. di koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di ko ziar wér nuyu baax sëriñ Xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm. di nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaa nuyu kilifa dina yeewoo ci biir réew mi di nuyu maman Dieynaba Fall kooku suñu mamaa la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di am mbégte ak kontante ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu Umar bun Xataab ñu ngi koy nuyu dina la fellu ci li nga xam ne mooy mbiroom Cheikh Baara Ndiaye borom def gis ñuy ñaan eh, mu dee génn ci jàmm ak salaam deltuwaat ci njaboot gi. sa sénégalais yi soxla nañ ko ci biti wax dëgg fa yàlla. donc loolu ñu ngi koy continuer di ko ñaan comme ni nga xam ne noonu lañ koy affiché noonu ci écran bi loolu nekk loo xamante ni bi lu am solal di nuyu bu baax nag Baye Assane Mesere ah ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm waaw son bu day ruube parce que day wax ba ñenoon la daan lay lonk lonkal waaw dugal ca mab biram waaj loolu genre galgal la waaw <laughs> waaw parce que saa yoo ko dugalee waaj xam nga ni am na looy waaj kon Assane kon waaw kon boobu waaj moomu ngay jël teg ko de côté ah, bàyyi bàyyi Assane ah, mesere mu continuer ay mbiram ah, loolu mooy li nga xamante bi mooy dëgg parce yenn yi. Hmm. Euh, tooñ la meilleur chroniqueur ak chroniqueur du peuple. non bàyyil tooñ. bokkuñu ñoom bu ko tooñ parce que yëpp yaay weng wengal lépp ngir sal teel na mën naa ko nuyu kon wàcc mën naa ko nuyu. bu ko teg nuyoo fii bu ko teg ci nuyoo maanaam da teg kenn ci diggante bi soo <laughs> ko indi wàcc. jërëjëf waaj bu nuyoo <laughs> jërëjëf <laughs> ah, macha allah ah di nuyu Soybu di am ci moom mbégte kontaan di ko ñaanal jàmm moom it mi nga xamante ni mi ngi caxabal Baye Assane mm. waaye bu yeboo xam ni Baye Assane moom ah. macha allah neexoot a caxabal parce que askan wi ñoo ko def meilleur chroniqueur du peuple loolu nag Soybu da ngay daal dee nangu rek parce que boo nanguwul mm-hmm. booy wet di xaru macha allah d'accord ci de euh, euh, gis nga mbir su amee sénégalais yëpp euh, def affirmation que ni Assane moom mooy meilleur chroniqueur depuis daaw ba ren nga bëgg ñëw tey jii nii ne loolu du amee loolu aussi jaar Assane toi ban kuréel moo def loolu tu es le meilleur sénégalais yëpp ñoom ñoo koy wax vraiment c'est ah, très content say say analyse dafa dafa dafa pertinent borom analyse yu gaaw yi maa ngi lay nuyu merci day toog macha allah jërëjëf kontaan naa lool maa jigéen si présentation bu rëy bi nga xamante ni présente nga ko émission bu rëy bi nga xamante ni moom la fi Sénégal yi desee mm. macha allah kontaan nañ lool surtout ni nga téye biig bi ni ngay kiyee macha allah daal kontaan nañ si yow lool maa jigéen di kontaan kontaan si ajaratu bitim boobu ak suka ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax hmm? ah, en tout cas maa jigéen daa seetlu ni mu téyee bi koo xoo xam ne la daw daw jàng ndax ni mu ko téyee nii professionnel dëgg moo koy <laughs> ah wóoru mu kii daal laa <laughs> ko nuyu moom Amar eh, bun Xattaab gi di ko ñaanal jàmm waaye di ko nuyu moom alaaji saa njóogu mbeng di ko ñaanal it di ko wax ni ko man mi bëgg na maa dégg alaaji balaa yàggale nga taxaw ci fexe ma dem siyaar ji yonent bi gis nga attention dañ lay wax kii tam tabal la rek nga ëpp loxo. <laughs> Oh, mbirum mbirum màkk ba booy ba te ko yoo teg ko ah, ah, ah, <laughs> ñu. waaw yow moom mbirum màkk bu bu ci. bu ci dugg noonu. ah déet ay moromu Assane màkk. Assane moom moromu yow xamoo histoire bi yow xamoo histoire bi xamoo histoire moom mënut a màkk. màkk moom bu ci sax jéem. Assane am na kon léegi maa ngi lay diglu rek. maa ngi koy nuyu moom soxna bu di ko ndokkeel di ndokkeel suñu yaay ji demoon màkk moom it mm. di ko ñaanal bu baax a baax a baax mm. euh, yal na ko suñu borom gën a dëgëral waaye di nuyu dem Diop bu baax sama xarit wax ne nag maa ngi bañ xamante ba léegi tey lañ ma sa bokk plateau mm. chronique waaw nii waaw ah, fii waaw Mm. tey tey la waaw tey lañ mas a ma présenté wul tey lañ ko mas a bokk. Ah. ko mas a bokk loolu moom muy muy loo xamante ni daal. Mm-hmm. Euh, lu yéeme la moom ndax xam nga ñi kii ma toogee ak moom it. ak ma toogee ak saa li muy def si man. bokkul ak mm. ma toogut ak ñoom. bu ma toogee ak ñoom damay xal li ba doyal. <laughs> waaw nuyuwaale suñu xarit bi Baye Cheikh Fall. waaw Baye Cheikh Fall ñu ngi koy siyaare bu baax moom it di ko ñaanal. Mm-hmm. di nuyu nag ki ma ko xam ne moom laa koy tëjee muy sama yaay ajaratu moom i kebe di ko ñaanal jàmm di ko wax ni mi ngi waajal màggal gi bu baax a baax. Mm-hmm. bu fekkee màggal gi euh, meilleur chroniqueur ah, bu fekkee. nañ si àgg ak jàmm. ah d' accord incha allah yal nañ ci yàlla yóbboo ko <laughs> jàmm ak salaam en tout cas yal na yàlla dolli jàmm ci biir réew mi ba lépp lu ñu fi dëgmal rek ñu def ko si jàmm ak salaam. ay ayca ñu dem <laughs> régie jëli li nga xamante ne nii moo ji lu ay di jàmbat ak Omar Bun Xatab. jërëjëf Modou Diouf kon nag Omar euh, maa ngi lay jox kàddu gi rek. ak mm. actualité bi nga wax tout à l'heure muy mbirum Ousmane Sonko ñu seetlu ci weekend bi yëpp daanaka mooy actualité bi gën a faax euh, ci Sénégal. Mm-hmm. mooy actualité bi gën a faax avant barage ak après barrage <laughs> Sonko avant barage ak Sonko après barrage mi ngi noonu looloy coow li ci dëkk bi. léegi euh, junjoon naa sànq ci arrestation bi ak euh, parti bi na tas nan ko yow nag euh, am na koo gisal ci mbedd mi mu wax ci xalaatam ñu jukki aslëf rek ci liñ jot a waxtaan ak moom. jamono joo xam ne ñu ngi ko doon xaar. waaye ñu ngi doon wax ni saa su ne mën na ne bu fekkee ni dañoo jëm si exécuter décision de justice bi nga xam ne moo tukkee si euh, problème bi nga amoon ak euh, ki nga xam moo di aji saa waaye ba ñu walbatikoo euh, jot li nga xam moo di bataaxal procureur ba ñuy wax waxum sàccum portable appel à l'insurrection foofu la foofu la bétaate bi wa wa euh, dukkee waaye sa ëllëg sa euh, bu ñu waatee li nga xam ne moo di euh, ab bataaxal procureur def conférence de presse andi sept charge yu yu dix yoo xam ne technologie que gàll na ko si nodd Ousmane Sonko effectivement foofu la ñu ne woon nag fu mu toll nii moom mbir mi nu ko tubaab di wax rek ambale wu na ambale wu na dans la dans la dans la dans dans la mesure où xaar ñu woon ñu teg ko loxo si motif bi nga xam ne dafa am par par jàmmaarloo ak benn euh, jigéen joo xam ne ab taxadar la. man mandat de dépôt bi euh, en en réalité mënu ma woon parce que itam procureur teg na ay charges yoo xam ne pénalement c'est criminel procureur may lu woon juge buntu boo xam ne dina may Ousmane ko mu war ñibbi këram lenn moo doon conséquence te conséquence bi benn loon moo doon son placement sous mandat de dépôt. te juge bi loolu la topp mu di Maham Diallo doyen des juges wëlbatiku sax si juróom-ñaari chef d' moom mu dollu si euh, euh, beneen boo xam ne muy huit chef d' waaye programme am na sañ-sañ topp nit ki jël téeméeri chef d' inculpation ko sa kaw waaye du tax ñu ne lañ la jiin yaa ko def instruction lañ ko yóbbu instruction nag amul àpp mais l'un dans l'autre li si am solo moo di bu ñu yeggee si war ko taxawal war ko juger su boobaa nag euh, avocat ak moom si jëmmam boppam ak li procureur indi ñoom ñooy koy fexe nu nuñ ko déconstruire ba nga xam ne dañu ne procureur li mu wax ñoom daañu ko mën a mën a déconstruire waa xam naa tekk bi du ma mën a moom moo am sañ-sañ ñu laaj ko mu bañ a tontu xëy na jàpp na ni lañ ko tegee loxo euh, jaarul yoon motif bi tax ñu njëkk ko jàpp jàpp na ni xëy na moom jaarul yoon lañ ko inculpé jiñ ko ko xëy na moom jàpp na ni jaarul yoon ba tax na su boobaa nag day am sañ-sañ boo ko neexee bañ a tontu euh, yegg si càppaandaw ga parce que ñu def la ay chef d'inculpation arrestation yóbbu la euh, fii nga xam ne moo di prison euh, euh, gannaaw bu ñu la placé sous mandat di dépôt du caagane ni yaa def loolu yëpp nag procès moo koy déterminer procès bi nag ñëpp dinañ ko xaar lan lañ si topp ak ban àpp la ak kañ la mais li am solo rek si mbir mi te ñu war ko wax te procureur wax na ko te am na ñoo xam ne seen xam-xam màcc na bu baax si wàllu droit pénal ku si mel ni professeur Ndiak Fall nee na soit le motif maanaam ak lu mu munti doon ñu jàpp Ousmane Sonko. contumace bañ ko condamné woon jeex na kon nil na gannaaw buñ ko placé sous mandat de dépôt boo xool numéro 2 bi buñ ko génnee prison yàggul liberté provisoire la nekk booy xool ki nga xam mooy secrétaire national à la communication il est dans une liberté provisoire précaire numéro 4 numéro 5 numéro 6 numéro 2 ak ñi yore mouvement des jeunes patriotes daanaka ñoo ñëpp tam ñi ngi prison donc boo koy xool présidente mouvement national des femmes xëy na moom la yàlla may jàmm donc de ce ngay jàpp ni Euh, jëwriñ bi xëy na am na élément yooyu yëpp pour mën a jëm si li nga xam moo di tas parti bi. Euh, fas yéene ci rek euh, ñëw di fàttali ni waroon nañ am gan waaye du noo juyoog moom waaye du ñàkk ni suba war ak yeneen bis yi ñu ñëw fas yéene ko waxtaanee waxtaan wi nag day du génn Ousmane sonk rek ak jàpp gi ñu ko jàpp ak tas gi ñu tas parti bi bii nag tey damay bañ Assane lii ma moo tax damay njëkk a jox Assane Assane ban gis nga am si loolu. waaw jërëjëf Amar. gis-gis bi ma si am si jàpp bi wala tas bi wala lépp lay non booleel lépp ah. waaw waaye boole gi lépp moom mooy eh, bi nga xamante ni barakaat nañ ko wax naa ko ñoom ñëpp nit ñi dañoo ko concentré woon si diglu Ousmane Sonko ak la sa topp mais gis nañ ne biñ dee bi biñ dindee barakaat bi ñu si bëri dañoo bàyyi lase daal maanaam jàpp ni léegi jàmm am na mhm. mais bu buñ jekkee-jekk gis ñu ne coppet yóbbu nañ ko mhm. lu bett Sénégal yi yëpp lay doon ndax affaire dafa am procédure mhm. dañoo jekki-jekki ñu ne jàpp nañ Sonko yóbbu nañ Sonko. ci mhm. biir jàpp Sonko gën man am na si loo xamante ni jaaxal na ma ndax man gisuma benn vidéo boo xamante ni wane nañ ko lu bokk ci Sonko wala ñu wane benn photo boo xamante ni wane nañ ko lu bokk si Sonko loolu lu ma gën a jaaxal la beneen bi ba ci kër Sonko garde gardien yi man gis naa ni dem nañ fa ba laxas fa laxas caméra yeeg yëpp te gisuma kenn ku leen photo wala benn vidéo bu fa jógee yooyu yëpp daal loo xamante ni. lu ma jaaxal la ak it ni mu demee noonu waroon naa mën a gën a demee neneen. si kii boobu ñu fexe see am dara daal. beneen bi it bi nga xamante ni jàpp nañ ko gis naa ni procédure bi gaaw na lool. arrêté nañ ko kii nañ ko yóbbu nañ ko si xutaan léegi nag toog di xaar lan lañ war a xaar ak kañ lañ ko war a woolu. looloot mu ngi suñ kanam ñu koy xaarandi. mais bu dee si côté parti bi moom xaw naa gaaw tas parti gi. xaw naa gaaw tuuti buñ xaaroon tuuti ba àtte ko bu fekkee dañ koy daan ñu daan ko buñ dee tas parti bi doog a tas parti bi mais yaakaar naa ni Sonko li mu def li ñu ko toppee tëpp wuñ ko parti bi moom lañ ko toppee li mu def moom la concerné yoon tere na ko nee nañu mu def ko kon nag yoon bu koy daan moom lay daan mais comme que parti bi moom moomu ko teyit sosu ko da caa bokk mu ngi mel ne kon ñu ne ko waat nit ku bokk ci ab daayira def erreur mhm. exemple ñu ñëw jàpp ko pare dem tasi daayira ba mais mën nañ koo jàpp bàyyi daayira ba continuer ndax daayira ba ñu ngi sart yi nga xamante ni moom moom la yoon santaane mi ngi mel ne ñu bokk ci gouvernement bi di doxal mais da gis ku sàcc alalu askan wi mais bu ñu koy jàpp moom la ñuy jàpp wala nga gis ku def faux billet bu ñu koy jàpp moom la ñuy jàpp pourtant moom mënoon nañu koo jàpp ni ko da def faux billet te bokk ci gouvernement bi kon gouvernement bi ni muy doxee noonu tas ko mhm. mais defuñu ko ndax dañu xam ne kii moo def erreur bi ginnaaw jàpp nañ ni Sonko def erreur ñu jàpp ko mais nag nañoo bàyyi parti bi doxal parti benn ñu continuer di ko xool bu ñu demee nag ba nga xamante ni am na loo xamante ni parti bee ko organiser def ko si organisation bi parti bi organisé du Sonko de li parti bi organisé mu am erreur bu jaree tas ñu tas ko wala ñu wutal ko procédure tuuti mm-hmm. mais procédure bi gàtt na lool Amar euh, Gueye mm-hmm. mm-hmm. ah, sooy bu euh, jërëjëf Assane di ko jaajëfal bu baax euh, yàkkamti boobu jàpp tëj tas bi pour yow la lañ ci jublu waaw Omar balaa balaa loolu Ousmane Sonko dafa nekk euh, kenn ci politiciens yi koo xam ni mhm. man choix bu damaa bokk ci ñu gëm ni am na ceetaan gu am ci mbiram am na acharnement bu am ci mbiram mhm. acharnement bi jóge na fu bari mhm. mën nga koo jël ci ay mbokki politiciens yom mën nga koo jël ci partisan wu politiciens yi ànd ak ñeneen soo bee réseaux sociaux yi di déglu Serigne Seck ñi chronique ak ñi nga xam ni sax ñooy ñeneen da ngay jàpp ni benn opposant moo ne ci Sénégal muy Ousmane Sonko. xam naa boo ne woon tey yor naa un million boo xam ni ci eh, cinq mille cinq cinq mois yi ñu génn wala un an yi ñu génn ku yor benn vidéo boo xam ne kenn ku bokk APR day asaar néew ci kenn ci politiciens yi ku dul Ousmane Sonko un million boobu dana lamb maanaam kenn la ñuy saaga ci réseaux sociaux yi muy Ousmane Sonko kenn la ñuy xas kenn la dal ci kawam moom la ñuy wooyee lu nekk ci réseaux sociaux yi ci partisan wu gars yi nga xam ne ñoo fi ne mm-hmm. après da ngay toog ba yàgg nga ne mais ana sax yeneen opposant yi ana Idrissa Seck ana Pape Djibril ana ñoom Bougane ana ci ana Thierno Alassane Sall ana Khalifa ana Déthié ana ñeneen da ngay mujj laajte lu tax li maanaam lu xew ba ñëpp dëgmal jenn jëmm di ko xaasa ko saaga ak di eh, xebet ay mbiram. Mhm. Euh, muy benn eh, suñu bu dee suñu côté ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, ñi nga xam ne ñooy nguur gi kenn lañ jàkkaar lool moom la ñuy wooyee lu nekk façon tur bu nekk moom lañ jàppee ki bañ jàmm moom lañ gis ni discours am mooy discours bi nga xam ne ña ko jiitu. daanañ wax lu mel ni li muy wax mais ci jamono jii moom dafa mel ni li muy wax ci la araam te ay la yéwén bi ñuy wax lale ak bi ñuy wax lii même article yi fi nekkoon ñoo fi nekk même loi yi fi nekkoon ñoo fi nekk même yat wi doon dal ci seen kaw moo fi nekk ba léegi lu tax nag mu araamoon démb ñaawoon démb euh, wala boog mu rafetoon démb euh, yell démb tey mu ñaaw loolu yeneen question la yoo xam ni euh, dañ koy laaj waaye barikaat bi man dafa am ñaari yu ma réer ci àddina yoo xam ni benn bi ñàkk ànduk Euh, Barthélemy Dias ak Ousmane Sonko. maanaam lu ma réere noonu ci politique musul am parce que man maa daan toog fii nii ñaar du ñu war euh, euh, Ousmane Sonko muy Barthélemy Dias ak Déthié Fall parce que seen courage ni ma ko gisoon ni koy defee ak Ousmane Sonko bu xewlee ni ñu ñëwee taxaw seen i discours dafa nuroo woon ak discours Ousmane Sonko muy muy muy benn ah. waaw loolu après après dinaa ci ñëw. comprendre nga muy boobu. beneen bi mooy jëlug Ousmane Sonko lu ma réeree noonu ci politique musul am. parce que man àjjuma jaar naa cité góor gi maak Assane. jaar nañ fa ba li teewoon ñu àgg kër Ousmane Sonko bariwul benn mbedd rek bu ñu fa jaar doon buntu kër Ousmane Sonko lañuy jaar. ñu ngi jaar buntu d'accord noonu après daal di wiiri ji mbooleem fu ñu barricadé woon ñu dindi ko gisuñu fa luy nuroog oto police gisuñu fa policier gisuñu fa gendarme gisuñu dara dara. léegi cité kër góor gi fii la nekk soriwul même pas 15 minutes ñu agsi fi ñu jëm ñu a rek ñun Ousmane Sonko jàpp nañ ko cest à lu waral loolu ak lu tax ñu dindi barricade bi 48 heures après ñu jël ko loolu réer na ma manaam gaawaay gi nag Sadio gu ñëwoon na ci tey ci ni mu ko waxee ni même bu dul woon portable bi sax dina ñëw ci leneen parce que yàgg nañ koo soxla yàgg nañ ko bëgg a jàpp te ñoom seen biir ñi ngi doon wax naan et que euh, xale yi def seen examen moo tee ñu jëli ko te noonu lañ ko defee wax dëgg yàlla euh, ñenn ci ñoom ci live bi daan nañ ko wax ñenn ci ñoom seen i part daan nañ ko wax kon loolu lañ jëfalee mu mel ni kon acharnement la boo xam ni euh, man gis naa ko te loolu mooy li am ci Sénégal. Mm-hmm. li xew nag lu tax duma ko duma ci am maanaam xel mu ñaaw comme ñeneen ñi am na ñoo xam ni benn femme gis naa ko démb mu ni histoire politique am jeex na parce que kenn la bëggoon dugg na ci kaso bi kon pare na ma ne ko déedéet day dem ñu jàngal ko histoire Youssouf ak histoire Moussa Youssouf ay doomi baayam ñoo ko xeexoon dugal ko euh, ci teen mu jógewaat fa dem ñu dugal ko prison ak la fa xew lépp ci moom mais prison bañ ko jógaloon tey dem na ba génn fa ba nekk buuru li nga xam ne moom mooy fa buur ba nekkoon loolu leen la ci kon dugg prison mën na yëkkati maqaama ni dugg dugg prison mën na la dugal feneen Moussa gis nga li ko daloon ka ko doon xeex Macky Sall nettali nañ ko fii mooy na ni kii di fi juddoo lii di fi juddoo parce que dañoo bëgg xeex sama nguur ka nga xam ne tey moo ko waroon wuutu jawaram ji ko gis moo ko njëkk bëgg ni ko kii de comme amuñu doom nañ ko jël ñu def ko suñu doom ak la ca xew lépp fa ñu jaar ba yàlla nar koo dimbali keroog ba mu demee ba nga xam ne am na lu mu def na ba Firawna toj njàppam ak yooyu yëpp ba mu ni dama koy rey léegi léegi pour ma rey ko léegi jabar ji ni ko nañ teg guro ak xal bu jëlee xal wi ñu xam ne xamul dara tay ko bu jëlee guro gi ñu xam ne moo ko tey ak na yàlla firee loxo bi ba mu jël xalwa teg ko ci làmmiñ wi làmmiñ wi mujj dotam ak yooyu yëpp la ca xew te moo mujjee eh, li nga xam ni mooy ndam la kon ñi ànd ak Ousmane Sonko bu ñu rappelé woo li xew ci Sëñ Tuubaa ak bi ko xañee àqam ak yelleefam teg ci moom injustice ak yooyu yëpp ay nit ya jaar nañ fi yoo xam ne bu leen yàlla bëggee yëkkati faaw mu teg leen natt kon ñi ko bëggoon bu ñu xam ni seen waaye dee na ci politique bu ñu yaakaar ni pare na ci parti bi ñu tas lool du dara yàgg nañu wax ni sëñ Tuubaa dañuy tes daaraam ji tas jàngaleem yi keroog la am jàngaleem gën a jóg ci kaw yàgg nañ ko def Seydi Hadji Malick ci zawiya yi tey zawiya yi foo dugg ci euh, ndakaaru laa ilaaha illallaah jaa ngi riir kon nit maanaam tas mbiram ci làmmeñ taxul mu tas ñi jàppoon nañu jàpp xam ni seen waa ji ñu àndaloon mu leen daan wax ay discours yu baax ni dafa dafa bëgg a dekkal Afrique bu ñu gëmee loolu rek yàlla dimbali leen ci mais bu ñu gëmee ni tas nañ parti bi te nañ ko prison nañ toog rek non euh, Sa Ndiogou waaw macha allah euh, waxtaan wi am na solo xam nga réew mi moom. Euh, dafa toll foo xam ne. Mhm. defe naa ni. damay jékki-jékki rek damay wax ne dafa mel ni gars yi dañoo xëy rek jël coup dañoo mel ni boxeur bu jël ku tool ni moo tax Omar di tartari ba tey démarré wut. non non non non ko indi mooy. Ah ah, <laughs> euh, mais euh, parfois mm. àddina dafa am loo xamante ni bi euh, mooy mm. nit ñi. léeg-léeg euh, dañuy gis te duñuy fàttaliku léeg-léeg àddina dangay xool ci li romb mm-hmm. li nga ne ak fa nga jëm ñan ñoo nekkoon ci ay situation son bi ñëw na sànq joxe na mm-hmm. euh, histoire Moussa euh, joxe na tamit Youssouf mm-hmm. muy ay jaar-jaar ñu nekkoon ci lëndëm ba xëy na ci leer boo ko seetee fii ba ci sunu biir réew mi am na c'est pas la première fois politicien dugg kaso Abdoulaye dugg na kaso euh, ay yoon yoon Abdou Diouf tëj na ko tëjati ko euh, gis nga ko fi nga xamante fa la mu si Lamine da daan faral di wax ni raccourci la pour euh, nga daadee mën a jóge ci kaso dem nekk li nga xam ni mooy président loolu si lamin am na ay kii yu bari yoo xamante ni bi daan na ko faral di fàttali lii nga xamante ni bi am na maanaam am na ñoo xamante ni bi ci lëndëm ci la ñuy gis ak leer am na ñoo xam ne ci leer na <laughs> ci ci bu leeree ci ñoom sax booba la lëndëm ci ñoom maanaam léeg-léeg li ngay gis ak lii ne mën nay wuute parce que dafa am loo xamante ni bi tey tey ñu ngi toog nii di waxtaanee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko euh, bu fekkente ni bi tey da nga jël ku mel ni nga demoon ay Zaïre peut-être ki ñuy doon ki ñuy waxtaanee jóge na fi boo demee tey Burkina ki ñuy waxaaya waxtaanee jóge na fi parce que ñu ngi lay wax Sankara ñu ngi lay wax kii Sénégal doon doon nañ lay wax Mamadou Dia mais ki ñu lay wax mi ngi dund mu ngi nii nga jàkkaarloo anaat fan la ne fii la ne ci kaso kaso kaso bi la ne comprendre euh, tëj kaso lenn tamit leneen la li nga xamante ni bi moom la fi def maanaam euh, ab parti xotti këyit yomb na waaye dindi ngëm-ngëm ci bopp nit ñi loolu mooy li jafe maanaam am na loo xamante ni bi dafa xas ba ne ci kaw nit ki dama lay faral di wax damay maa ngi ko doon wax tey soo ma ne ko am na ñoo xam ne ci dindi seen problème ci lañ am problème maanaam problème boo ko jéemee éliminer daal ne damay dindi problème bi euh, dindee ko ak xel mais maanaam dafa am noo xam ne boo ko jéemee dindi ci ngay gën a am problème man gëm naa ni ñoom ñii ñëpp di politiciens yi ku ci nekk xam nga lan ngay daw njëkkante ji da ngay daw njëkkante euh, ngir doon ay ay sonko ñoom ñëpp fi mu toll dañuy sonko sonko di nga gis ci politiciens yi ñoo xamante ni dinañ commencé gën a changer discours pour at pour ñi nga xamante ni bii ñoo sopp Ousmane Sonko pour ñu doon ko mais munuñu ko doon nañ teey jarut ñuy parax paraxi non dañu bëgg loolu yëpp mën na ne mais mënul nekk maanaam mën nañu jéem mais du nekk c'est parce que dafa am loo xamante ni bii tey judd na ci nit ñi. te gis nga lii nga xam ne bi mooy riir muy vent bi nga xamante ni moo nekk muy vent patriotisme bi yamut ci Sénégal rek Afrique la ci jamono jiñ toll nii boo xoolee la nga xam ni xew na Mali euh, na nga xamante ni bi tey noonu lañ wax gis nga ko problème mu CEDEAO bi nga xamante ni bi commencé na ko am ak Burkina ak Mali ah, affaire u Niger bi xam nga yooyu yëpp maanaam bi président Macky Sall demee Russie nga xamante ni bi ki nga xam ne mooy Euh, Traoré Côte Côte d'Ivoire kii Burkina wax na benn discours nga gis tontu bi nga xamante ni moom la ko tontu comprendre nga gis ni moom xale la buy wax ak i mag. Mhm. nga gis ni diggante maanaam mbir mi mbirum xale la ak mag xale yi ci boppam Afrique xale yi ñoo buggatut a tut mag jiite leen. Mhm. parce que bokkuñu gis-gis parce que mag ñi dañ leen a yar nàmpatal leen ci loo xamante ni bii bokk na ci li ñu tardeel. Mhm. borom karaw gu ñuul ñàkkut dara. wërsëgu ndaw du gaaw. li yenn affaire yoo xamante ni bii. njariñ loo fekkee njariñ loo fekkee maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bii euh, baaxut comprendre ga am na ñoo xamante ni bii tey dama mës a fekk benn waaye mu ne mu ne ma mu ne garabu taal ma ne garabu tàndarma day def ay euh, mu ne xaw ma ay 60 ans soog ma ah loolu da jarta saxal kañ nga ciy lekk maanaam moom mooy xalaat pour lekk ci xalaatut pour keneen lekk ci. moom jàpp na ni bu ci lekkul rek amut njariñ waaw ñooy ku koy jëmbat mu ne kon ban njariñ la am léegi nga gis ni kooku moom xoolut ay sëtam ëllëg ñuy witt ci tàndara ba ñaan sama maam ko fi saxaloon seen yoon néew ci hmm. c'est que esprit boobu reelu na moo mais mais quand neexul ba neexul mais moo nekk ci ci ñun uh-huh. comprendre nga moo nekk ci ñun mooy njariñ loo fekkee hmm. yooyu yëpp nag dafa commencé am loo xamante ni bi dugg na muy ngelaw loo xamante ni bi euh, loolu kenn mënu koo téye kenn mënut a tëj loolu. dafa am loo xamante ni bi kenn mënu koo tëj. te xas na ba installé wu dugg na ba pare donc nag lii yëpp man damay wax ne euh, liñ am na nuñ ko waxee famal yax man waaw jafe-jafe après yombal moo cay topp ginnaaw ay jafe-jafe yomb moo cay topp maanaam état bi de kartam bi mujj jeex na amatul carte dañuy tere dajaloo bi de. non amatul non non comprendre loo de. dañuy tere ko wax Sonko. waaw ah, dajaloo di wax wax Sonko. ah yow gisoo maanaam ku wax Sonko la ñu dajaloo ñeent fukki nit yi dajaloo wax Sonko ah, ah bon. Ah, loolu kañ la. loolu arrêté la bu ñu bind loolu kañ la Assane. loolu dégguma ko am na loolu dañuy dañuy tere ñeent fukki nit ñu dajaloo. lu tax envoyé wax waxi Sonko. lu tax envoyé woo waxu loolu de daf ne. Eh. Euh, euh, réunion ñoom. ci turu Pastef. turu Pastef waaw loolu lañu koy aaye léegi. xam nga loolu fukki nit yu toog waaw loolu mooy lu dangereux xam nga tey man Omar. nga jéggal ma maa ngi guddal. Euh, gis nga réunion yi nga xam ne xam nga bu njëkk ba moo tax ma ne parti boo ko tasee boo éliminer parti ne jëlee nga fi parti hmm. pour man dugg nga ci beneen problème hmm. xam nga lu tax ngay dugg ci problème maanaam parti buy réunion yaa ngi koy yëg hmm. xam nga fi ñuy réunion bu paree day communiquer ne lii lañ doon waxtaanee yaa ngi leen di xam mais jamono juñ toll nii buñ demee ba nga xam ni lii ngay wax buñ ko tegee mooy léegi day continuer di am te duñu xam fu muy amee ak lu ñuy wax ci clandestinité la ñuy dugg te bu ñu duggee foofu yow léegi dangay ngay perdre yëf yi. mën nañu wax loolu mën nga perdre fil mën nga perdre affaire bi fu mu toll. loolu nag baaxut parce que am réew boo koy kii da nga war a xam fi yëf yi di toll. Hmm. partie yeeg dajaloo yëpp il faut que ñu jéem a contrôler xam yëf yi fu mu tolloog nu yëf yi di demee mais bu ñu commencé dugg ci leneen rek. Hmm. yaa ngi indi ay problème ci réew. Hmm. waaw donc nag euh, mbir yi du noonu ko quoi nañu jéem a xalaataat. man moo tax man ànduma ci tas bi nga xamante ni moom lañ tas parti bi jàpp naa ni parti bi ñu bàyyi woon ko mu nekk gars yi di dem di eh, seeni ci ci ay plateau di wax loolu dafa baax mm-hmm. loolu mooy li gën ah mais kon duutu dem plateau parce que ñoom liñ bëgg mooy wax Sonko kenn du ko waxati loolu nag moo leen di sonal parce que waxu Sonko fi mu toll nii mooy nekk actualité ba élection yi di romb Sonko moom la nit ñi di wax parce que ñoo ko def mm-hmm. ñoo ko def martyr ñoo ko def li mu nekk tey mënatu la ne tey lañ koy gaay nit ñi di gën a wax voilà. waaw waaw comme man mooy présente dama koy bàyyi mu teg léegi man sama xalaat rek li mu ci amoon mooy euh, saa fi mu ñëw ci clandestinité xam ne démb man kersa la am. Hmm. kersa gi mooy exemple bi la njëkk a jox PA yi lan la jox Masmoud Diop. Masmoud Diop dañ ko daan hmm. dégg mooy PA yi. waaw PA yi ñu ne tasoon nañ ko ci jamonoy Senghor maanaam Macky Sall mi juddu woon bi ñuy tas parti Masmoud Diop. moom moo fi dundaat ba am plus de soixante ans hmm. ñëw tas parti hmm. moom bi ñu koy fal du woon pour loolu hmm. maanaam fi ñu delloo bu ñu demee ba delluwaat ci Majhemout Diop te xale yi xamuñu kan mooy Majhemout Diop boo dem il faut nga dem ci pour xam moom mooy kan maanaam dellu ginnaaw boobu moom kenn xamul nu mu toll te loolu gëm naa ne day topp Macky Sall ak nguuram parce que tamit le fait que ñuy fàttali Majhemout Diop rek moo wane ne fii kenn du fi fàtte dara loo fi def rek defoo fi mais defaat la beneen bi ci topp mooy da ngay waxee yenn saay yëg-yëg imaginel ñu ne parti bi tas nañ ko ki jiite parti bi téye nañ ko mais kenn daanagu ko ba tey ji moom day bénéficier wu présomption d'innocence mm. maanaam kenn tëjagu ko kenn atteegu ko ci dara doon ko tuumaal kase léegi bu ñu demoon ba bis ñu ne parti Pastef lan doon jiiñ Ousmane ko amul léegi nuy def parti bi. loolu problème la loolu problème mais tas bi maanaam gaawantu boobu maanaam ñu demoon ba ne nii Ousmane Sonko toppatuñ ko dara léegi nan lay jubbantiwaatee ba dajalawaat parti bi kon tas parti bi moom ab yàkkamti la boo xam ne doo xam sax lan lañ ci jublu dem di daj yi ay photo jàmbur ak dem di barricade lii di siège am ak pour man yooyu yëpp mënoon nañ ci bañ egg mais aussi bañ a yàkkamti ba yoon may leen ko ba bis ñu egg ci ñu ne nañ despart parce que fii dafa am ñaar yoo xam ne yoon da ko maye ci réew mi liberté wu am association mais liberté wu aussi joxe sa xalaat te ñaari parti bu mënul dajee joxe xalaatam parti boobu ban njëriñ la am te depuis quelque temps Pastef mënul loolu kon dogal boobu jiitu na tey mënuñu mm. def investiture mënuñu daje heure bu ñu waree dajee seen siège parti ñu barricade ko képp ku wax ci ñoom ñu jël la tee ci kaso bi kon tey jii dañ ko jëfe ci këyit rek mais lu yàgg di teg la léegi nag li jëm ci mbiru Ousmane Sonko man démb bi ne tëj nañ ko li ma ci njëkk xalaat parce que foofu moom yëg-yëg laay waxee waxuma analise man yàlla dafa dogal bi ñu jàppee Idriss Seck en 2004 daf ma metti ba ma rangoon tuuru bi Karim Wade lool dal na ma ci moom sama xol tooy Khalifa dal mais Ousmane Sonko loolu daluma ci moom man bi ñu ko jàppee dama sant yàlla dama ne lii rek la nga ko dese lool loo xam ne bu ko dundul tey da koy dund kon mu teel ko dund rek parce que nguur gi lu mu fi yàgg-yàgg juróom-benn weer moo ko fi dese te lu mu ko fi téetee gëm naa ne du wees juróom-benn weer ci kaso bi yëg-yëg boobu ma am nag ba julli ñaar ràkk jàpp ni rek lii ab cant la rek ci moom xaw ma lu ma ko def defloo mais damay jàpp ni doon lu koy yàqal mais lii mën na doon lu koy defar politiquement beneen parce que dafa bari ay nitam yoo xam ne danoo dugg kaso te ñu jàpp ni defaan sun ko moo leen ci dugal kon moom bu duggee pour man ci conscience parce que neexul ngay ànd ak ay nit ñëpp dugg kaso nga nekk ci biti pour man démb bi mu tëddee bi mu nalawee yandoor na parce que dina ni am na yan boo xam ne yan woon naa ko tey ji teggi nan ma ko parce que sa numéro 2 c'est lépp ñu dugal leen ci kaso bi nit ñoo xam ne bokk ñu Pastef sa doon la défendre rek ñoo ñëpp ñu dugal leen kon boo fekkee daa yan boo xam ne yan woon nga ko bu dee gor nga mais yenni na la ko pour man démb dañ koy yenn yan boo xam ne dafa diisoon ci moom te mosu ko wax waaw parce que dafa am benn kilifa boo xam ne bëgguma tudd turam bi ñu ko jàppee daa am ku mu wax ni réaction bi Ousmane Sonko am biir këram da kaa woon loolu ba bis boobu bokk na ci bis yi ko gën a mett ci àddina parce que mënu woon comprendre loolu am kon da ko doon dund ak naqar di ko dund lu jafe kon bu leen fekkee rek dina am loo xam ne dañ ko koy yenni moom Ousmane Sonko beneen bi aussi foofu laay tëjee. Mhm. mooy li jëm ci waa jooju wax na ko sax que Sall nee na xaw ma bi mu duggee alhamdulilah la wax. kii te beneen bi beneen bi ma jàpp ni kaso lu gën ci moom la. lu tax ma ni alhamdulilah boobu. mais Ousmane Sonko bu demee seeti ay mbokkam Ziguinchor bu génnee du jàmm Ousmane Sonko ko woowee tribunal mu war a du jàmm ci moom Ousmane Sonko bu duggee Sweet Beauté ngir bakkanam. bu génnee du jàmm coow lay jur Ousmane Sonko bu julli jee jumaa bi mooy ñaareelu yoon bu waree ñibbisi ci njabootam du jur jàmm maanaam yow bu dee da nga nekk ci sa bakkan doo am jàmm mais boo nekkee sa diggante ak sa borom doo am jàmm dem ba yow tey jii dama ne est-ce que sax du ci kaso bi lay ëppee kaaraange ndaxte foofu na xanaa bu fa nekkee kenn du ko fekk naan ko yemal fii wala fee pour man lii ñu ko dugal ci kaso bi man yëg-yëg bi ma ciy am. Mhm. dama jàpp ni lu gën ci moom la. ndaxte ginnaaw këram bi ñu jàppee woon ni palais barricade ko di ko garder ni président. Mhm. dem na ci pale de justice pare palais de justice dem prison bu génnee prison dama gëm ni ci pale lay duggaat. incha allah loolu yëg-yëg boobu laa en tout cas. beneen bi ci topp dama lay lii xam ne tey dafa bokk ci li ñu koy gàll tax ñu tee ko mooy appel à l'insurrection. Mhm. Ousmane Sonko ñu bari ñu ngi naan lu tax nit ñi génnuñu mais dama jàpp ni mbir yàlla da ci am xamul tax. parce que bu nit ñi génnoon insurrection boobu ñu ko gàll maanaam dañ nit ñi dañ ci am firnde am na nu réew mi doon doxee ñu ne ah lettre ba mu bindoon ak communiqué bi de lii la jur. d'accord waaye de jurul lu tax ñu mën a tudde toppee nit appel à l'insurrection kon moom ay mbiram. Ah. bu ci génnee yàlla. pour man yàlla mu ngi ci te ban ko jàppee jàppeek léegi dem jumaak euh, tim kaamelam ca la ne. kon képp ku ko bëgg a jàppale pour man mm. du rayante. wala xeex nga koy jàppale mais dee ko ñaanal ci yàlla. incha allahu rabbi appel à l' insurrection boobu sax ngay wax tey suba maa ngi liiral benn message bu nga xamante ne nii son excellence monsieur Macky Sall en 2011 juin bindoon na am message bi nu mel di woo ñi nga xamante ne nii ñoo di ndaw ñi ngir ñu génn ndax jàppoon na ni euh, maître Wade la mu nekkee woon euh, jaarul yoon waaye nag waa fu ñoom itam nee nañu ñu ngi xaar notification boo xamante ne nii buy wane ne communiqué bi ministre de l' intérieur génnee. ngir dissoudre boobu le parti eh, dinañ ko topp euh, légalement suñu jotee boobu le notification en tout cas merci beaucoup Omar euh, ci waxtaan wi am na solo bu baax a baax ñuy ñaanaat rek jàmm suñu jàmm ci biir réew mi di ñaanal Ousmane Sonko bu baax a baax fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla suñu borom bi taxawu te gaaw génne ko moom ak bépp détenu politique ay ca tout de suite ñu dem jëli li nga xamante ni ni moo di actualité du jour ay ci jërëjëf Modou Diouf tey nag daañu waxtaanee ba tey du génn ci mbirum Ousmane Sonko male nga xamante ne ni moo ngi ci jamono ji fële ci Sébikotane avocat am bii di Juan Branco espagnol boobu nag euh, nga xamante ne ni dañu ko euh, daal di defoon ab mandat d'arrêt international procureur bi nag euh, moom moo sàkku li nimel waaye nag keroog ci aljuma ji xaw ma ci samedi bi bi nga xamante ne ni moo di avocat Ousmane sonk yi di daje daal di amal seen conférence de presse moom nag daal jékki-jékki rek daal di ne euh, sax ci boobu boobule conférence de presse jël fa parole euh, daal di nag wax ki nga xamante ne nii moo di euh, procureur bi xamal ne ko nu some venus ici à Dakar vous dire que nous nous n'avions pas peur vraiment mu nekk loo xamante ne nii lu doy waar la am na élément boo xamante ne nii Abdou Top dinañu ko tegal léegi léegi moom Juan Branco daal di dellusiwaat. Nous sommes venus ici vous dire que nous n'avions pas peur nous sommes venus ici. au Sénégal où s'engage le devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas avoir peur. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir du grand peuple des déshérités, a été arrêté. Ce n'est pas le cas de l'espoir qui s'est levé à ses côtés. Cet espoir, que les balles n'ont pas réussi à détenir, résonne par-delà ses contrées. Il s'élève et s'impose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés qui, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leurs qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, vogue jusqu'aux gilets jaunes français, en passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le procureur, qu'une masse sombre et obscure vous toise, vous et vos décisions d'apparence si ferme et si assurée. Une masse sombre et obscure qui fut celle de vos ancêtres, qui fut celle qui, en des temps reculés, se leva pour mettre fin au regard clair qui l'esclavagisait et la soumettait. Cette masse sombre qui vous a fait homme, vous souhaitez désormais la battre. C'est une masse sombre que vous craignez désormais plus que tout, contre laquelle vous vous êtes montré, prête à lever des armes destinées a quelques années, s'est levé. Et c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. industriel ki nga xamante ne ni moo di Juan Branco ci image yi ma liiral leen li nga xam ne jot na ko wax ci boobule conférence de presse moom Juan Branco nag ba mu débarqué keroog ci dimanche ji 30 euh, juillet 2024 avocat bi daan nay xamal ne ne monsieur le procureur me voilà je n'ai eh, pas l'âme d'un fugitif j'ai fait le serment de défendre un homme Ousmane dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et euh, partons de toute l'humanité. Nous sommes venus à Dakar ici Euh, pour veu dire que nous n'avions pas peur loolu la ki nga xamante ne nii moo di Juan Branco xamle ca boobule conférence de presse waaye ginnaaw ba ca noppee nag askanu Sénégal ak ñenn ñu bëree bëri ñu ngi doon laajte moom ma Juan Branco fan la jaar bu dugg ci biir réew mi puisque dafa amoon mandat d'arrêt international ñenn ñu bëri di laajte nag ndax euh, suñu réew mi frontières yi wala aéroport bi est-ce que li nga xamante ne nii moo di saytu bi wax ñi ngi koy def mu mel ni Assane Mesere euh, ba Sénégalais yi bi ki nga xamante ni nii moo di Juan Branco ñu bëri ab mbetteel la ñu am ci ñëw bi nga xamante ni ñëw na ko fii si biir Sénégal. waaw Juan de man maa jigéen jàpp naa ni fi mu war a jaar la jaar si avion yi la jaar wàcc ay aéroport bi arrêté ñëw jël oto romb ay montage ba ni mu see dugg bi mu duggee ci avocat yi xaj na am na ñu yëg ni ñëwoon na waaye am na ñu ko yëgut mhm. mais erreur bi ñu def mooy awokaay kàddu gi ñu ko jox waruñu ko woon jox kàddu. mais avocat avocat la mais avocat dafa tegu si yoon avocat yëpp dañ leen bind tàggu nañ seen seen kilifa seen kilifa ak avocat tàggu. kenn mooy kii maa ngi ñëw leeralal leen lan ñu wax leen lan lañ fa war a waxtaane kenn du heure ñu bind ñan ñoo fa war a jël kàddu. def ko ci liste jox leen. mais Juan Branco ci avocat. Ousmane Sonko da nga maa laaj wala da nga maa laaj. wala laaj non dama lay. de da nga may da nga maa da nga maa laaj wala laajoo. Aïcha da nga maa laaj lii lu ci sa xalaat. non non non ni ngay waxee. déedéet débat wuñ ma ak yow da nga maa laaj. waa dañuy débat. dañuy débat non non da nga maa laaj. ma lay wax mais mais débat la il faut. ma xamoon ni débat la kay du ma leen bàyyi yéen ñi ngeen di wax seen xarit di dem rek te dugguma seen i wax débat non débat pas la mais. débat ah, la man damay dugg rek nu ma mën a duggee daay duggee. mais xawaan bu mu ñëwee kenn waru ko woon a jox kàddu ndax bokkutoon si list bi war a wax te fa mu ñëwee ni salaamaaleykum ñu jox ko kàddu bi mu ñëwee si waxi diggante bi moo ki mu war a defanteel la doon wax te wax yi defante la doon wax moo tax. aw aw aggu si leen leen woo ni leen na na dakk si leen leen seen kilifa woo ni leen na affaire dakk fa la dakk. avocat dañoo am njiit. kuy seen njiit xamoo ah de yow mi ko wax kay yow laa daal seen njiit mun leen na réunion bi dakk fa la dàkk àggut. xam nga àggut muy mais bu may wax ñi may waxal moom xam nañ kan la. moom avocat yi xam nañ kii mii Omar Gueye dina si ñëw aaye na leen ni leen na dakk mu dakk hmm. bi mu dàkkeet euh, kii bi génn na xawaan génn na jël oto am dem. non xawaan moom moo wax ba ba jeexal jël am. Hmm. Euh, portable am dem. affaire àggut. bi mu demee la tas. àggut dañ koo tas dañoo jot ordre ni na tas mu tas waaw ordre bi mu jógee ordre bi si seen njiit la jógee. Assane batoñu waaw. ñëpp xam nañ ni. Ousmane euh, waaw léegi yow da jël kàddu wala doo jël kàddu. non jëluma dama lay laaj. fekkee doo jël kàddu ma fekkee da ngay jël kàddu nga may ma après nga leeralal ma. non dama lay laaj. waaw may ma ma ñëw. léegi nag xuwaan moom si boppam ñëw gi. njëriñ li daa bëriwul si sama gis-gis ndax xuwaan bi mu nee salaamaaleykum gaa yi gis ko dañoo prononcé xuwaan ñëw na xuwaan ñëw na xuwaan ñëw na xuwaan ñëw na te booba suñu waa waa ji Sonko mi ngi si loxoy gaa yi kenn waxatul waxi Sonko gaa yëpp concentré wu ne xuwaan daanaka dañ koo bàyyi combat bi xuwaan. xuwaan parce que ni mu demee la woon bu njëkk ba mu ñëwee dañ ko ne de paatal mu ñu yàgg yàgg dégg. Ah, léegi joxe def nañ ko waa acca bokk merci beaucoup. Ah. Euh, euh, comme comme sa xalaat loolu la nangu woo ku la laaj yow kay liy tax sama. yëg ko laajoo ma de laajoo ma de laajoo ma de la laa laaj kay. da nga ma daaneel da war a bàyyi ma daaneel nga laajaat ma. dama lay laaj dama lay laaj. non non ma nga doog a laajaat ab ki boo ko laajee muy départ mënoo ko daggaat laajaat ko nga war a bàyyi ba mu daaneel nga laajaat beneen ba nga daaneel daaneelu ma dama naan daaneelu goo kon continuer asal joxal joxal hélas wala ah, nga jox <laughs> euh, wax na ko léegi nee na moom xalaatam mooy que ni euh, Juan Branco dafa jaar fu mu war a jaar euh, ba agsi fii si biir Sénégal ci koo xamante ne nii dañ laa wax ni foo ci nekk rek war nañ la mën a jàpp jébbal la procureur hmm. bi waaw xam ne fu mu jaar ak fu mu jaarul sax yooyu moom du sama problème par xaw ma ko aussi. Mm. gis naa ko daal mu ne copp na lay waaye lu maître la kii maître Sidiki Kaba doon wax ci booy jinne rek du ginax du mbët du bër bëtër. Mm-hmm. te du naaw kon ci yoon la jaar rek ba yegsi léegi nag ba ban yoon moom loolu ay pexeem la léegi nag euh, bu dee ni tey jii Juan Branco nag jëmmam man daa am lu ma ci jàng benn mooy. Euh, bi mu yegg see soulagé na ñu bari maanaam moom defal na ñu bari waaw ah, parce que dëfal bi non fu may waxee ci dëfal bi pare nga mooy euh, dafa euh, wolof yi dan na mag am loo xam ne mën koo waxal boppam waaye ku ko waxal mu jël uh-huh. lu xooran doon wax bari nañu ko xam de bari nañu ko mënta wax de dañ ko sañul wax ci réew mii ndax fii am na loo fi wax say tànk du laal suuf wala caabi féete la ginnaaw uh-huh. mais xoolaan a ko sañ a wax léegi xoolaan lu tax mu sañ ko wax benn avocat la c'est un métier libéral sañ na wax xalaatam ci procureur mais aussi tamit lu tax mu sañ ko wax parce que Juan du ñun mooy tubaab la waaw man loolu moom ma ci xaw a déranger mm. dama jekki-jekki ma xalaat xalaat boo xam ne <laughs> dama naan xalaatu dof la mooy lu tax booy yi ñëpp rêvé dem Europe dem nekk tubaab yi est-ce que nekkul dañuy sentir nu foofu leen gën a nekk en sécurité ko fii parce que Juan li mu wax lenn rek moo tax mu mucc ci mooy doomu tubaab la tubaab la hmm. mais keneen ku ko waxoon ku dul Juan say tànk du laal suuf hmm. lu waral mu sañ ko wax nag mooy réew yam bokk réew droit de l'homme la réew la yoo xam ne nit am na sañ-sañu wax xalaatam wax lu mu gëm réew la yoo xam ne nag nekkul ni danga nga far ak nguur rek loola neex wax lu opposition wax rek bàkkaar la réew yooyu liberté moom moo fa am loolu tax pour man Juan lenn rek moo ko may sañ-sañ bi mooy ñun ñu xoolaat suñu bopp ñun nit ku ñuul xoolaat ni ñun lu tax ñu mel ni tubaab yi lu tax sañ-sañ bi tubaab yi am amuñu parce xuwaan tey jii Sonko mi mu doon waxal bu Sonko fal woon gëm naa ne xuwaan moo ci gën a néewle sonk mi tax mu jël risque bi yépp ñëw toog ñëw défier gars yi ne risque bi ma jël lu ne mën na ci fekk mais dinaa ko def ndax lii lii lii lii ndax sama client lii lii nagam kooku moo sañ loolu te moom tey jii bu Sonko fal woon du ko falul ndaxte mënut a doon président parce que quand du sénégalais. Hmm. ñun ñi xam ne tey bu Sonko fal woon ñoo ci jariñ ñun sañu ñu wax loolu te mënuñu wax loolu lan mooy suñu différence ak xuwaan ak lan mooy différence France ak Sénégal. Hmm. ñun nan xoolaat suñu bopp. d'accord Omar da nga hmm. wax léegi lu am solo. muy que ne da nga ne peut-être fu mu jaar ba agsi yow loolu peut doo si wax. mais tamit là il s'agit de notre. naawul sécurité Sénégal est-ce que tamit même bu fekkee dafa jaar ci suuf rek même bu fekkee dafa jaar ci suuf mooy wane ne peut-être euh, caytu ak aar bi war ñu euh, sàmm ko suñu frontière sànq damay dégg benn avocat xam man euh, lu tax dugguma ci débat boobu mm. fi ñu gars bëgg a yóbbu waa nguur geeg yooyu ci mbiri xuwaan laay bañ a dem maanaam duñu ñu divertir ci ni na xuwaan nan lay nekkee ci dëkk bi toog ci conférence de presse ñëpp di ko gis ah ak renseignement yi nekk ci dëkk bi ak dëkk karange gi fi ne xuwaan mën a ñoo toog wax ak ñoom te tey jii fu fukki nit daje ab agent de renseignement mu ngi seen biir xuwaan hmm. mën a génn dawal otom génn ñu xëy naan nu ñi ngi war xuwaan mais loolu man yoo waxi dof yooyu man kenn du ma ci dugal xuwaan hmm. bu ñu ko bëggoon jàpp dañuy dem jàppi ko jël ko téye mais est que war nañ ko jàpp est ce que mandat d'arrêt bi ñu ko teg tey jii procureur moo ko war a tegee dégg naa am ku ne juge la ab juge moo mën a tege loolu yaa ngi si yoo am na yoo xam ne man kenn du ma ci dugal di ma jéem a divertir mais man damay ñëm ci jëmmi xuwaan rek moom mi bokkul ci réew mi sañ réew mi lu waa réew mi sañul lan moo waral loolu. Hmm. maanaam bokkul ci réew mi sañ réew mi lu waa réew mi sañul. Hmm. parce que tubaab la. d'accord hmm. jërëjëf son yi bu Omar lu muy wax si laay dikkaat rek mooy que ne suñu demee ba léegi nii fu waay neexee dugg ci biir réew mi est-ce que tamit duñu tiit ci suñu bopp parce que euh, li ñuy wax rek lu nekk ngi ci biir àdduna bi dëkk bu amul kaaraange ak ñuy saytu ñuy dugg ak ñii génn. baadu du ñu jëm jëmale feneen. waaw jërëjëf ma jigéen. Mhm. Euh, xam nga xawaan ab tubaab la comme ni ko euh, kii waxee nit ku weex la. Mhm. am fii ci Sénégal ñoo xam ni ay chroniqueur la ñu tuddee leen ay journaliste investigation yoo xam ne ab comédien la ko tuddee. Mhm. ci biir comédien bi tey Sanjogu mi ñu toog. bari nañu doon wax naan comédien la comédien la. mais li muy xel li ci xelam ak li muy wax. macha allah ak lu ñëwagul. loo xam dana ko xoolal mu ni lii lii teg ay trace am wala nga des fois mu jàngat ci jommet loo xam ne dañuy dox tuuti ñu gis réew mi wala ensemble wala wala def acte yu mel noonu loolu kon bul ni diw comédien la rek mais ki ngay wax comédien kan la ak lan lay wax ci xelam ma jàpp ne Ousmane Sonko cuunewul euh, Pastef cuunewuñu cuune gu toll ni dem ba bitim réew di fa jël koo xam ni dañ koo jël ndax ab comédien la wala da leen di défendre foofu ci bitim réew déedéet mm. gis nañ ay actes yu bëri yu muy def foofu ay daje yu muy def ay yu muy yu muy toog yoo xam ni mm. ay plateau yu mag lañ fii am na ñoo xam ne ay journaliste lañ ay comédien lañ lañ ay kii lañ laa bëgg a wax avocat lañ mm. mais du ci plateau yi ñu bëgg a dem la ñuy dem mm. am na plateau yoo xam ne caaxaan du la fa teg man damay am problème ci fan la jaar awma ci problème man dama jàpp ni ci suñu aéroport yi la jaar man jàpp ma ni dafa naaw dañ koo luxus wala ci ay ndox la jaar wala ci ay bato dama jàpp ni ku am mandat d'arrêt waaw moom laa lay wax non moom laa la wax dañ la war a moom laa wax la daloon Karim Wade ñu koy convoqué muy ñëw Sénégal di jël avion xam na ni bu ñëw dañ koy tëj. xuwaan bi mu ñëw xam na ni am na mandat d'arrêt international xam na loolu mais ku am fit woowu kay xam nga am nga ko ngay ñëw ci dëkk bii looy làqatu di jaar ci ay ñax ay bateau ay oto. ku am fitu xam ñëw ci réew mi nga xam ne dañ ñu foofu ñëw nga ba aéroport ñu dëpp la mais aéroport bi mu jaaroon laa gëm ni fa la jaar dugg ci Sénégal lii wax ji kay mooy est-ce que ñu ngi saytu suñuy frontière ni ko ñoom xuwaan di saytoo. Mm-hmm. ce que loolu ñu ngi koy saytu. tey man su ma jaaroon ci gaal gi léegi dem bitim réew am na fu ñu naan croix bleue foo xam ne boo demee ñooñu doo dem directement dugg ci dëkk ba ñoo lay téye hmm. di la fajaka defi yëfaka téye la foofu ba nga am këyit wala ba nga mën a sa mbokk mën laa jël si nga jël si mais nekkul ni dëkk ba dangay dem rek dugg directement c'est-à-dire Sénégal hmm. maam Abdou Aziz daan na ko wax ni bala ngeen a supprimer daara supprimer leen drogue xool leen frontières yi affaire yi di bëtt di dugg ci dëkk bi ngeen di ko xool hmm. lii nag dafay wane ni Euh, Sénégal am na lu des ci côté ñiy saytu liy dugg mais man jàpp ma ne xuwaan dafa seey dafa kii non non fi mu war a jaar la jaar di rivaliser sam jël taxi bu dee taxi la wala ci koy jël si mu jël si ko. d'accord mais ma ne la jaar mu def procureur bi xamal ne ko ne man ragaluma. ah waaw mooy mooy li def rek ku am man ku am mandat international nga mën a jël avion ñëw mooy ragalul procureur bi mu nekkal ragalul juge bi fi ne ragalul sax président Sall dafa mu nekk lay teg di tiwit la doon toog fee bi di ko tiwit li Omar wax léegi. ku ko tiwitoon boo nay cëpp say tànk du laal suuf mm. te daan tiwit lu ko neex lay wax mm. ndaje mujj mi nga xam ne moom la euh, président Sall boole woon ñoom mm, kii Amadou Ba ak ñooñu bañ paree lam leen bindal ca tiwit lam leen bindal ñoom ñett boole seen photo yi ñi mu koo wax fii te pourtant bind na wax na ko ñëw na Sénégal am na fit fi te ka ko ku ko defoon boo ñëwee fii say tànk du laal suuf dafa mel daal der bu weex am na leneen lu muy joué mais <laughs> ngi koy wër nee nañ ñi ngi koy wër loolu ah, <laughs> man de ñu ma dégg soon ñu war leen fi yàggul ñu jàpp leen. jàpp nañ leen waaw. ayca mi ngi noonu jërëjëf euh, euh, <laughs> soñ bu euh, merci beaucoup Alaaji. Mhm. mu mel ni gis nga Juan Branco ba mu dikkee ca conférence de presse bi nga xamante ni nii avocat Ousmane Sonko yi ñu ngi ko doon amal keroog ci dimanche bi kàddu yi nga xam ne nii yëkkati na ko jëmale ko ci procureur bi ñenn Sénégalais yu bëri ku nekk ak ni ngay analyser li mu def. waaw d'abord man euh, ñëw gi moom faaw ma ñëw ci parce que dañoo nekk ci am réew. Mm-hmm. moo xamante ni bii dafa am yu xew ci bitti lu ci mel ni ay terroriste ak yenn affaires yi di xew. Mm-hmm. ñun ñu wax ñu ne ñu sunu frontières yi am na kaaraange. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ni moom lañ ñu wax. ne ñu ñi ngi veillé ñi ngi kii ñi ngi et léegi nag bu ñu mënee gis le contraire maanaam jàpp naa ni xawaan bi muy ñëw bu doon kenn gis na ko ci ñi ko war a gis. du duggee noonu mhm. man loolu mooy li nga xam ni moom laa gëm dama gëm ni gisuñu ko jàpp naa ni dañoo jekk gis ko ci kii bi man loolu mooy li nga xam ni moom laa gëm ni noonu la yëf yi demee. waaw bu gëwuma ni. gëw ma ni gisoon nañu ko. maanaam dafa takk dara. parce que gëm naa ne bu ñu ko gisoon. du jàll du yegg bay ñëw même bu yegsee. danañ ko bu ñu ko gisoon danañ ko xàmmee nañ ko. waaw loolu yëpp moo lay wan ne la problème. kon am mandat d'arrêt non nañ ko laa xam nga xam nga nee nañ dafa jaar par Gambie hmm. ñaari passeport la yor. espagnol ak français ak français. Hmm. nee nañ mi ngi jàll see ci turu xaw ma espagnol bi. moom lu dugg <laughs> donc bi muy ñëw. Ah. bi muy ñëw ab espagnol dugg. <laughs> bi see ab France bi yegg see doon France. waaw xam nga ni saa yi loolu suñ bi loolu. waaw waaw bi may nuyu. waaw dafay dafa soppaliku ci diggante bi. bu soppaliku waaw dafa soppaliku ci diggante bi. ab ah, espagnol bi muy dugg. léegi loolu nag. loolu moom wax dëgg fa yàlla. Euh, problème la parce que jamono jiñ toll nii sécurité dafa war a am. ci sunu frontière yi te nag loolu image bi muy joxe mm-hmm. mooy Sénégal moom kaaraange amu fa ci frontière yi loolu mm-hmm. moom mooy ñi nga xam ni tey ñoo nekk ci bitti loolu danañ capter loolu mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ni tamit ci yooyu rek la ñu ne donc nag dañu waroon a wane rigueur pour wane ni dëkk bi moom pour nit dugg fi jafewul dafa war a leen mais xawaan moom dafa ñëw loolu la njëkkat màbb ku ne naan fu nag di jëbale ci ay procureur ak yooyu maanaam rajaxe na frontière bi ba egsi donc léegi loolu problème la bàyyi na foofu problème soog a ñëw waaw léegi nag euh, gis nañ ko gisuñu ko loolu tamit bu ñu fi nekkee naan gisuñu ko lu yàgg day indi tamit ñu ne police bi efficace defuñu ko defuñu ko comprendre nga parce que hmm. ñun dafa am loo xam dañ ñu ko waxoon ci suñu police ak gendarme hmm. dañu wax ni dañu efficace dañu def nii dañu def nii mais depuis quelque temps Euh, comme que yàgg nañ ñu wax force occulte ñoo xamante nee nañ ñii bi ñu rëccee ba léegi gisaatuñ leen. ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi ci dëkk bi xamuñu fu ñu ne. Mm-hmm. ba noppi xowaan tamit ñëw réer mbër ñu naan gisuñu koog yooyu yooyu yëpp day wane yaa ngi defar ay faay yoo xamante ni bi yaa ngi koy def nit ñi ñu ngi jàpp ni kon nit ñi est-ce que li ñu war a liggéey ñu ngi koy te et puis kañ la police bi mel noonu. Mm-hmm. maanaam dafa mel ni li gars yi di wax naan dañu jël doole jéeg yëpp xalaat yëpp mu jëm ci benn nit. peut-être ci kanam dinañ efficace parce que euh, comme que téye nañ Ousmane Sonko peut-être xel yi nag mais euh, am na ñoo xamante ni bii loolu lañ doon wax ne euh, dañu jël lépp jëmale ko ci ki nga xam ni mooy lool léegi nag xawaan li mu wax mu nekk wax joo xamante ni bii tey ñëw na defiwaat ki nga xam ni moom mooy procureur wax ko ne ko loolu mu wax noonu dafa waroon a ne fii ci biir réew mi ñu mën di wax yenn yi. parce que loolu dafa baax ci am réew day mhm. dundal day day am lu muy dundal parce que sinon nit ñi dañuy am lu ñuy denc wax waaw wax wax ji moo tane bu ñu bàyyee wax depuis quelque temps nag dangay gis ni oh. léegi wax gis nga am na ñu bari ñoo xamante ni bi tey ci réseau sociaux yi dal nañ ci kaw Walfadjri yi wax ne lu tax wanewu leen lii lu tax defu leen lii lu tax lii ak lii nañu xam ni Walf dafa jóge ci procédure boo xamante ni bi tëjoon nañ ko ñaata fan ñetti fan ñu ñëwaat tëj la du dëkk donc leneen di mooy dañuy nangu sa licence. Mm-hmm. bu lañ koy def. waaw buñ ko nangoo. fooy nangu licence parti du fa bàyyi. léegi boo gisee ni ñu defee plateau nga xam ne def nañ plateau bu yoo xamante ni bi bëgg nañ ko def mais am na loo xamante ni boo ko defee comme noonu. Mm. Euh, ñu teg la daan yoo xam ne bi doo ci mën dara biñ ñu fi tëjee un un mois. gars yi ñëw nañ ku nekk def nga sa participation participer nga. mais loolu du continuer mais loolu mënul continuer. Hmm. mënuñu weeru dee ñu ne leen ñëw leen gars hmm. ñëwaat leen xam nga loolu mënul ne. déedéet dëkk weer weeru dee nga woon mënut ne. wu dee nga ne gars yi ñu ñëw soo def ci kees bi loolu mënta ne. donc tamit il faut que il faut que ñoom it ñu am na loo xamante ne bi tamit ñu bàyyi xel ci yenn yi xam ni ñoom ni ñu fiy nekkee ñoom ñooñu. nga xam ni eh, tamit bu ñuy wax ñi ngi moytu am na ñoo xam ne bi tey man dégg naa koo xam ne nekk dafa bitim réew dal ci kaw Walfadjri wax lu ne mhm. te kooku bërki Dembo Njaay moo ñëwoon di tagg Walfadjri mhm. léegi léew dañ la war a tagg pour nga tëj bu ko defee mu jeex ba faw mhm. ñu ne Walf moom léeboon luppoon amoon na fi eh, daana am léegi Walf éliminer nañ ko mbir mi du xeex bi du noonu du noonu la xeexee tey ma am lii wala lépp naax saay hmm. chaque jour ñu ngi nii di toog di wax ci plateau di wax ci mbirum Ousmane sonk hmm. njariñ du njariñ ah ñu ngi ciy joxe suñu xalaat suñu gis-gis hmm. di ci wax wax biñ ciy wax am na koo xamante ni ki tey ñun rek lay déglu ci loolu tey jii am na nu ñu koy coupé mën nañ ñoo déggati duñ ñu dégg du dëgg donc tamit nañu xam ni yëf yi na ci nit ñi dem ak xel te bañ cee dem ak xol doole yow nga nekk bitim réew non seulement yaa ngi bitim réew doon jàmbaar di def li ngay def. Hmm. mais soxlawut tamit aussi tamit nga wax ki nga xam ne moo nekk fi ne ko euh, lii ngay def. Hmm. defee ko nii waxal lii. Hmm. am na loo xamante bi am na ñoo xamante ne bi tey. discours bi ñu amee. fa ñu nekk rek moo tax ñu amee ko. ñun nag ñi ngi ci biir réew mi. Ah amee suñu discours. yoo xamante ni bii tey ñi ngi joxe suñuy gis-gis chaque jour saa yoo génnee fii ñu ne état bi nga compte. yaa ngi dégg àndoog état àndoog li yaa ngi koy si biir c' est parce que yaa ngi joxe sa xaalis mbir mi du ànd ak état am maanaam li ngay wax na nekk dëgg ci yow. Mm-hmm. na nekk loo xamante ni bii loo gëm la. li may toog di wax ak li Omar ma jàpp naa ni ñi may toogal ñëpp ñuy wax. Mm-hmm. ku ciy toog di wax li ngay wax loo gëm la. Mm-hmm. yaa ngi dégg parce que nii nga xam ne noonu la yëf yi di doxee. ànduma ci tey ànduma ci ëllëg parce que nii ñu koy doxalee pour man jaaduwul. man pour man mën nañu xajoo réew mi doxal teg mbir yi ci li nga xam ne mooy siraatal mustaqim mbir yi daa dee dem. Hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy dëkk hmm. waaye nag nit ki tamit bërki démboo jaay lee am na euh, il faut que ñu ñu delloo si xel li am solo daal ci bu may ñëwaat ci xawaan. Hmm. Euh, mooy que ni euh, du wane nag courage wane nag njàmbaar loolu lu am solo la. loo xamante ni ñëw na. jàkkaarloo naag ñu ne woon dañ koy wër moo tax it Ndeye Fatou Ndiaye booy tiktok nañ ko ba mu bëgg a dee. Mm-hmm. parce que fii la taxawoon moom analyser ba ne xawaan am na problème far xawaan teer. Mm-hmm. moo tax seetaan naa lëx mu naan ko yow <laughs> <laughs> mel ni génne ma ci. <laughs> mel ni moom la Ndeye Fatou boo may wax dee wax la daal ma xawaan léegi léegi xawaan ak di ñëw. ndaw si moom daa man dafa baax man pare man damay gis. dañuy dafa am ak problème dañuy mel ni ñu am ak problème. Euh, Pastef quoi c'est que tamit loolu mooy sama problème quoi ah, yaa ngi toog yaa ngi def say analyse mais dafa mais da gis ni am na ñoo xam ne bu ñuy wax dangay gis ni maanaam day mel ni inde day feeñ ci wax ji nga mm-hmm. xamante ni bi moom la ñuy wax te loolu ah, pas bien quoi pour man mm-hmm. bon mm-hmm. Euh, nañu delloo si waat xel yi en tout cas xawaan li mu def wax dëgg fa yàlla euh, def na li tax nit ñi sénégalais yëpp sariyee ko li si Lamine doon wax ne sénégalais yi bëgg nañu jàmbaar waaye mais nag bu ñu fàtte ni euh, fii ci réew mi alaaji am na fi ay sëriñ yuy defar téere téere mais tubaab bi est gëm nañ loolu son yi. ah ñi ñi wërti gisuñu leen. <laughs> Ah, mais loolu bu lool ko. waaw tubaab xamul ah, loolu mais am na yor nañ gaala joo xam ne bu ñu nekkee ah, kenn du loolu leen neex mais damaa gëm ni Sénégal nekk fi naan ñu ngi leen di wër ñu leen di wër fàtte leneen moo leen neex d'accord waaw en tout cas daal ah. en tout cas daal yàlla na yàlla kii en tout cas daal li nga xamante ni moom la def moom keroog moom surprendre na ñu bari bett na leen parce que kenn sóoraale ko woon ci jotaay bi mu jékki-jékki na tël mhm. loolu mooy siiku ndiig jinne jommal nañu waaw ku ma doon laaj waaw mooy boobu rek war na ku ma doon laaj baa ngi waaw xam naa bi mu ñëwee loolu la procureur ku ma doon laaj baa waaw man xawaan maa ngi. <laughs> moo tax affaire bekkaay bay boobu ñu ne la xawaat xawaat mooy mbër boobu fi nekkoon. Ah, waaw waaw mbëru làmb ba xawaat. Ah, am na problème ah, waaw xawaat na ngoog. <laughs> booy yi ñu wëri loolu. booy la jël ko. am nañ am nañ jël ba boote nag xawaat na ngoog. ñun am nañ problème am nañ problème. <laughs> ah waaye xawaat na ko. ayca jërëjëf en tout cas mi ngi noonu man sama problème rek mooy euh, kaaraange gi nga xamante ne nii war nañ ko. Euh, xoolaat bu baax a baax ci frontières yi parce que bu fekkee ne dañu ko jébbal ab mandat d'arrêt euh, mu nekk lu sérieux donc su su duggee ci biir réew mi ba egg si euh, si destination am loolu war na tiital képp ko xam ne rek sénégalais nga du moment où ñu ngi wax ay terroriste fu nekk ak ay force occulte yi nga xamante ne ni ministre bu toog ci télé rek loolu nga ñuy euh, xamale mu nekk lu doy waar doy waar ay ca mu ngi noonu lii lañ leen indiloon tey ci actualité du jour bi Euh, ñu daldi dem nag ànd suñu sponsor lider yi euh, ci kanam tuuti ñu dolli si Sénégal ka fay kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën gaaw gaaw te wóor kape la waaw waaw kape de egsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam doomu réew la eh kape daal mi moo li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone man waaw waaw kape suñu gan gi egsi na kay kay kape ma kay kape ma moom sa bopp moom sa alal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 seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak bu Jóob ngir dëggal ak a wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te efficace secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asma bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay ferme li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg-dégg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. ay ca jaajëfal leen day daal di waar parce que chaque jour rek ñoom ñoo ñuy gunge muy kàppe mi nga xamante ne nii eh, di nga mën a def transfert retrait jënd sa crédit ak jënd loo xamante ne nii rek soxal na la alaaji Sanjo. loolooy dëgg kàppe fi man gën fi ñuy wax sénégalais yëpp ñu daal dee daw wuti ji li nga xamante ni moom la ñuy wax kàppe yi ndaxte kàppe yi daal bokk ci niroowut ak ñoom bokkut ak ñoom fem ak kan. Eh, solution mi nga xamante ne nii rek mooy faj jàngoro yi ci biir réew mi. Ah, dëgg sénégalais yi ñoo ko waxal seen bopp daal ne boutique solution mi. mii du moroomu gaay yi bokku ci nuroowut ak ñoom bokkut ak ñoom yi feem loolu nekk loo xamante bi lu am solo la hémorroïde ndoxum siti néew kàttan raay mu sedd ballonnement estomac ak li nga xam ne moom la ñuy wax asma waaye garabu karaw gi moo tax yéen jigéen ñi fi mu toll nii topp karawu jàmbur yi di taq ci seen bopp yi di ñab-ñabal te ay karaw yi jàmbur ngeen yor wut leen seen karawu bopp ñëw leen ci boutique solution am karaw normal waaye xam nga ni lii nga def ci sa bopp jàmbur nga xam ne boo ak gone indien lañ wat dégg nga maam jaay <laughs> naturel. te li ngeen def nag lu garaaw la nag. xale bañ jël xamoo ndax dañ ko torturé dagg karawam. wallaay juug lël leen ko dugg foofu seen karaw yi karaw yi bu ngeen ko gisoon billaay fu mu nekk teeñ nga muy teeñ. fas fas. waaw ah. fas. ma ne ko génn fas yéen dañ koy dagg. ah genn fas am na ñu koy def. mais mhm. bii bu kii la mais bii bu kii la pour. <laughs> jërëjëf Aïcha mi ngi noonu ku bëgg a jokkoo ak ñoom rek da ngay daal di def 78 426 66 77 78 426 66 77 wala nga def 75 630 50 50 75 630 50 50 lundi ba aljuma la 8h jàpp 16h30 ñuy fàttali ni bitub bi nekkul ci kaw ci suuf la nekk Aïcha ñu dem ànd. nga naan nekkul ci kaw ci suuf la yow xanaa ngay màndi day day baat yow kii kay bëgg a jaay ci suuf yow yàgg moom a bokk baadu kii jaay ci suuf nag nekk ngi ci kaw ci kaw kaw baadu kii jaay ci mu ñoo la xam day jekk baadu ñaar ak qualité ay baadu Basir mooy jaay ci suuf ah, nekkul ci suuf de baadu Basir ay jaay ci jaay ci suuf parce que Basir kara bi ñu déggante nee maa ngi waaj ñëw Sénégal ñëw na kon ñu ci suuf ñu ci suuf Assane yéen ci suuf ko fay ko ah, xool ah, léegi la ne boo gisee rek Basir ay kon boog bi nekkul ci suuf ci kaw nekk comme ni ko alaaji waxee rek képp ko xam ne bëgg nga ci yooyu les garab soo wootee si numéro yi ñu fi joxe léegi incha allah daa nga koo am ay ci ñu dem nag ànd ak Modou Diouf ci victime du net ak Soy bu Diop ci internet bi yow yaa ne dañu laa yebal. Euh, ci internet bi ngir ah. rek ngay euh, saytu ñi nga xamante ni nii ay victimes. macha allah lañu. jërëjëf ma jigéen comme ni ma ko waxee rek yéen a ma yebal ci internet bi hmm. euh, daanaka bu ma jógee ci émission bi maa ngi ci di wër pour sof ci li ji doon wax ci li ñu doon tekki teru wal ri ki koy def sax xam nga am na ñoom kii am na ñeneen ñoo xam ni ñoom tunkara hmm. dañuy wax hmm. génn seen kanam am na ñeneen ñuy wax génn seen kanam ñoo xam ne ñii kat ay Sénégalais mais nit koo xam ne yow bañ la doon dégg ngay live ba léegi sa photo rek ngay taf xamuñu sax photo boobu ndax yow a carrément kon boo dee teg sa euh, der ci Walfadjri benn da ngay laaj. Mm-hmm. ñoom dañoo bëgg loolu alxuraan te alxuraan nee na in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu mm-hmm. fii caméraman yëpp nekkoon di live Walfadjri yónnee woon na fa mais état bu Sénégal démb bu moo daggoon li nga xam ni mooy internet bi ba tey sax xam nga internet bi doxul ci mobile yi. Mm-hmm. Walfadjri dem nañu yónni nañ caméraman. am na ku fa nekkoon mooy xooxaan ndong mhm. enregistré nañu mhm. mais amul kenn ku am accès démb pour def direct ña fa nekkoon di kii seen téléphone portable la ñu yor mhm. ci ban réseau lañ nekkoon bay def direct loolu moo jaral laaj waaw mais pour leeral waa jooju wal fajiri dem na yónnee na ndaw li mu mënoon nag mooy def plateau teg ay boroomi xam-xam comme li Sanjogu wax ñu waxtaan ci fee yi la am ndax injustice la wala wala wala wala mais nag nañuy laajte ba pare wal fajiri musul lem ay loxoom ci li war a xew waaw mi ngi dem voilà noonu la Pape Alé pan moom lañ bëgg a waxtaane tey ndax ginnaaw live am bi mu defoon keroog man seetaan naa ci lu bari gannaaw ba la ñu ni convoqué nañ ko ba mu koy wax sax ne nañu avant mu àgg ca dimanche ja lañ ko jël si ñu dem xooli nag dernier la li nga xam ne mooy je rappelle c'est les mobilisation ñi nga xam ne ñoo di ñii di mobilisation ñi nga xam ne ñoo di euh, gendarme yu buntu këru Ousmane ñoo nekkoon nii voilà mobilisation forte mobilisation des gendarmes ah devant le domicile de Ousmane Sonko et les autres images yi nga xam ne am nañ ko voilà ça c'est très clair ça c'était devant le domicile avant ñuy tëb pour dugg ci biir kër gi donc euh, dugg nañ ci biir kër gi voilà ça c'est une vidéo c'est vidéo c'est vidéo une vidéo donc euh, c'était ça euh, l'information ak euh, bon d'autres informations ça c'est la porte qui a été défoncée pour accéder au domicile di ngeen koy gis nii la porte qui a été défoncée pour accéder au domicile Ousmane Sonko ça c'est devant le domicile les gendarmes euh, ça c'est devant la maison ñu bari nag dañuy wax nag dañuy wax wooy gars yi lu tax ñuy encagoulé wu mais euh, je pense que loolu si seen règlement yi la bokk parce que moi je me rappelle def naa benn voilà ça c'est une vidéo boo xam ne ñu ngi ci biir donc l'information c'est que euh, euh, Ousmane Sonko a été arrêté acheminé en ce moment ci DIC bi nga xam ne moo nekk euh, je pense que bon on va me donner le nom tout à l'heure DAC ou BAC je pas mais c'est comme ça ñoom ñoo fa nekk pour le moment pour euh, Euh, en, ses avocats sont en train de venir pour savoir les raisons de son arrestation. Mais je rappelle que bu ñu waxee arrestation bu sukkandiku. voilà mi ngi noonu Modou xam naa ni daa commencé na xam nga Modou màgget na léegi léegi maanaam actif gi mu defoon kiyatu ko moo tax mu teel dagg kii bi këfin lëfin bi ma doon këfin lëfin Omar mbir maa ngi nii lu ci mën a xew man bu dee li ma seetaan am na lu ma seetaan ci live bi nag du lépp. li ma jot a seetaan gisuma ci fu pap wootee lu maanaam ab xeex ak leneen lu tax ñu jël ko du ma ne it tamit vidéo bi moo tax ñu jël ko mais daal dernier live am bii nga xam ne génne na image yi woon kër biir Ousmane Sonko ak woote na ci biir kër gaat am ko jot ni ko bul joxee sa tur waxal rek jox ñu information bi ni mu demee mais soxlawul nga ñu wax yaay kan yu bare bare bari après sénégalais ci moom lañ ko xamee woon. Mm-hmm. gannaaw directam boobu ci lañ ko convoqué te ci jamono jooju sax mi ngi ci sous contrôle judiciaire bu jeexal <coughs> mm-hmm. waaw. waaw xam ne boo xoolee ci image bi d'abord di masawu Pape Alé Niang mhm. waaw parce que dalay metti day metti trop yokk ci li mu ñi nekk ci kaso bi rek mhm. waaw ak yu leen fay ak la leen fay dugal ak ni muy oyofee yenn saa yi question ci ñu am doom am jabar am ay mbokk am ay xarit am seen liggéey aussi di ko doxal mhm. nga xëy téye leen metti ak loolu leen mën a téye te loolu nag dafa commencé doon aada ci réew mi léegi nag bu dee Pape Alé keroog bi muy def live bi man am na lu mu ci cibre waaw parce que boo xoolee bu nee la ay vidéo de surveillance mënu woon génne dara parce que lii moo ko waraloon wala lee yaa ngi gis kon am na lu doon nëbb. Mhm. Pape Alé nag comme ñoom doon doon nëbb te Pape Alé di wane. Mhm. du ñàkk ni la mu doon wane moo leen arrangé wul. Mhm. bëggoon nañ def mais loolu ko ci réew mi maanaam dara di xew ngay filme yow ah. loolu aay wuñ ko de. réew mi ngay wax yow. Sénégal fii waaw. Ah. yaa ngi ci réew ba léegi <laughs> xalaat ah, man pour man li ñu doon nëbb mu koy wane te bëgguñu ko wane. Mhm. parce que ñàkk bëgg mu wane moo waral balaa Pape ñu jël yenn dogal yi. Mhm. Pape Alé dem na sax ba di def liggéeyam il est objectif parce que mi ngi wax ci lu lu tax ñuy kaglewu mu jàpp ne lu normal la si seen mission la bokk seen liggéey. Mhm. kon moom rek da doon def compte rendu bu fidèle par rapport ak li xew. comme ni ko métier journalisme maye. Mhm. léegi da nga ne du du waxoo lii la nga koy toppee mais fii daa am lu fi xew yes mooy da lay jàpp ba pare du wër lu la toppee aussi. waaw ah. ah. mën na faa fekk ma xam ne Sonko dal na woon ab photo rek. ak portable fa leen mujjee ak moom. waa bëgg la chef d'inculpation ah. kii tamit mën nga jàpp ni lii lu oyof nga. génn dem fekk fa yeneen. ñu wax la yeneen parce que lu ñuy dajale Assane Diouf fii leen ko jàpp. ci loo xam ne juge déglu woon na ko ci ban bàyyeeku mu ñibbi ñu xëy woo Assane Diouf am na juróom-ñaari retour de parquet xamul juróom-benn. après loolu nga dul ci lu mu doon li saa di wax des fois doo mën a analyser doo xam lan la quoi parce que man bu dee ku def wala jalgati yoon ñu koy topp ci yoon. Mm-hmm. li lay wan ne sénégalais ak ñoo nite te xam yoon Birame Souleye dañ ko doon ñaanal rek mais kenn du ko défendre. Mm-hmm. ñu bari ñaanal rek parce que ñëpp xam nañ ni wax na ba mbëkk miir bi dugg na fu mu war a dugg. Mm-hmm. mais nan wax lan la Pape Alé ñaa def ak lan moo waral tax ñu téye ko. parce que bii mooy ñetteelu yoon. wala ñeent boo xam ne Pape Alé. mais yow faragoo dara ci ay xabaar. non non koy toppee man mbir Pape Alé moom dama cee réer man dama xamul lan la Pape Alé. affaire dara seenul mais lu ma ci xam parce que ñi ko jàpp ñoo ñu war a wax lan la def ak lan lañ koy toppee. parce que dañ ne xaw ma appel à l'insurrection. ok waaw dégg naa ñu ko ci wax mais ci li ma déglu ci Pape Alé lan moo ci appel à l'insurrection wala ni ko yoon tuddee ak ñun ko tuddee du benn. du te bari na ci ñi nekk ci kaso bi loolu la leen di toppee mais boo toppee seeni wax ba ci biir. Mhm. da ngay poser question. lan mooy appel à l'insurrection léegi nag dama bëggoon ñu tekkal ñu ko ñoom ci wolof parce que nag des fois bu ñu bëggee ndax baat bi ci tubaab rek lañu koy wax mooy woote xeex woote xuloo woote ay ay dajaloo mbëkkante. parce que tey jii dama lay jox benn exemple Ousmane Sonko mi ñuy wax. Hmm. mars 2021 bi waa m 2 waxee ba Ousmane Sonko génn da daam lu ma retenir ci kàddoom bi muy def conférence de presse. Hmm. daf na fii ba 2024 Macky moo jiite réew mi. waaw nañ ko bàyyi mu yeggale te bëgguma képp ku doom jug jëm pale ba di jéem a génne président ndaxte ba deux mille vingt quatre mooy. njiitu réewu Sénégal. kàddu boobu dafa lañ koy dugal léegi kooku bu nu wëlbatikoo tey jii ne ñu ngi koy jiñ ñi lii ak lee ak lee des fois da ngay poser question dafa mel ne ñoom li ñu bëgg a gis rek la ñuy gis li ñu bëgg a def euh, xam rek la ñuy xam te te korog damay seetaan ba si àgg ma ne war nañ la fay droit d'auteur man de victime du net waaw ah. <laughs> dama gis ñi publier ay vidéo Sonko. Ah. ma ni mbete <laughs> mbete victime du net. ah doo comprendre man daal doo comprendre. aywa réellement. Mhm. lan lañ jublu ci woo. mais am nga xabaar ni commencé na waar commencé waat naa xiifal. kan Pape. Pape ma mi ngi ci Pape euh, Pape xeexkat la. nee nañ ma ngay xiifalaat de. waaw ah, Pape xeexkat la. Mhm. mais daal nan ko bàyyi mu. ñibbi moom ak képp koo xam ne yaa ngi ci kaso bu dee Sonko rek moo taxoon ñu leen doon jàpp. Mhm. jàpp nañ Sonko kay nan bàyyi ñeneen ñi. macha allah. Hmm? jërëjëf Assane yow laay faral di dégg ngay wax ku ñu jàpp rek nga ni bu demee dinañ ko tegal yeneen ak yeneen ak yeneen. Hmm. Pape nag bi ñu ko fi bàyyee ci ay weer lay toll mbaa daanara a dem ñu génneel ko ay live bu mars ak euh, avril ak mai juin ak yooyu ndax bu fekkee ci li ma seetaan lu mu li moom. Hmm. wax dëgg yàlla gisuma ci kaay leen xeex ak dem leen génne kee ak dem leen defilale. waaw am na solo xam nga appel bu ngeen bi nga wax noonu si réew mi. Hmm. mu ne tey jii yow boo ne woon na ñëpp takku xeex defar sunum réew ñun la woote ko. loolu waratu ko wax. waaw maa ngi woo Sénégal gépp ñu takku xeex ngir suñu réew jëm kanam. loolu sëñ ñu loolu amatoo droit wax boo ko waxee woote nga appel bi. appel bi day daal di dugg. maanaam nañ xeex. mais ñoom ñoo taxawaloon gouvernement de combat. non tey ci boo na Sénégal. ak takk ñu xeex ngir suñu réew jëm kanam xam nga loolu moom suñu solo gaa la woon. mi ngi mel xeex ak siburu bi. waaw nañ xeex suñu réew xeex ñàkk gi. sax waaye na ko fi. xeex ñëpp takku xeex ndóol gi. affaire yooyu ñu jàppale suñu jàmbaar ji xam nga loolu waaye nañ ko fi mais léegi loolu lu contre si jamono hmm? yi. waaw loolu kenn waratu ko. day dugg ci appel à l'insurrection. léegi kay li nga war a wax gars yi na nooy grève du si dugg mais képp kuy wootee maanaam ñu ñu góor góorgóorlu ngir sunum réew bul tudd Sonko ngir sunum réew rek ñoom dañ ko jël dugal si côté Sonko bi. ok kon kenn wërta wax wax ju demee noonu. Mhm. beneen bi nag lii mu wone ñu ne buñ comme ça Sonko mi lii bu fekkee lii la man jàpp ma ni lii lañ ko wooloo ndax lii terewuñ ko. Mhm. ndax Ousmane Sonko jàpp nañ ko si digg àll boo xamante ni benn Sénégalais nekk fa lu dul ay takk der hmm. te wan nañ ko foto nañ ko wan ñu muy ci pil si oto euh, kon loolu terewuñ kon Pape Alé Niang li ko jàppee xaj na awakaam dana génn wala li ñu ko woolu awakaam war nañ ko leer en tant que maire ko si tout cas daal woo nañ ko te xam naa la tax ñu woo ko dinañ ko leeralal nit ñi mais daal gëm ma ni affaire film la wala affaire yi wane vidéo ndax bu doon looloo Ousmane Sonko bañ ko jàppee si digg àll ba kenn du xam nañ ko jàppee kenn du xam ban oto ko indi mhm. donte bii nag moom réer réer na ñëpp ndax ba léegi man gisuma image lu bokk si Ousmane Sonko luñ ñu won mhm. te foofa dafa waroon a am image dafa waroon a am lu Pape Alé yi amu amagoo ci benn xabaar amaguma si benn jàkkaarloogul ak juge bi de sama bi kañ ngay jox elage waaw damay laaj ndax jàkkaarloo na ak wala jàkkaarloogul ak juge bi jàkkaarloogul ak juge bu jàkkaarloo juge bi kay nga nii kay fi mu ne nii buy taw kenn yi taw Sonko bii ku ko moytuwut musiba dana la daal ndax kuñ si <laughs> jàpp moom ba kii la kenn duutu la dégg si si mbiru Sonko rek lañu nekk. fi mu nekk nii ne ñu ngi am yaakaar ñu nit Cheikh Bara Ndiaye ñu bàyyil ñu ko tuuti ñu xaw see féexlu doog ko continué waat si mbiru Sonko Sonko. <laughs> ñu ngi koy ñaan bu baax a baax ministre bi bàyyi ñu Cheikh Bara Ndiaye bu ko defee ñu xaw a rës pour mën a. ministre mooy mooy jàppe. ministre mooy jàppe. kan mooy jàppe. <laughs> kan mooy jàppe. procureur. moo def appel. procureur du ministre. kon man man. ko yow néew ministre ko yële. moo yëlef kay. ah waaw <laughs> ah, ngay waxal. waaw doone Macky jigéen kilifa ministre bi. <laughs> yu mel ni di xew ci pénc mi de moo waral li saaroon wax léegi ñun mokkal nañu yëpp man ay retour de parquet appel à l'insurrection yooyu yëpp xaw ma ko woon mokkalu ma ko mais léegi ak li xew tax na yëpp laa xam. ay liberté provisoire ah euh, nangam yëpp léegi sénégalais yi miin nañ ko xam ko ndax ñaara ban ñett yu nekk ñu jàpp kenn dugal ci kaso bi te motif bi ñuy wax ñaari da naan est-ce que jaroon na ko. Hmm, waaw léegi xale yu ndaw yi sax dañ koy fowantoo li ngay wax tout à parce que Pape Alé moom ñëpp xam nañ ni euh, sous contrôle judiciaire la la la la la. nekkoon jamono jeexagul woon sax. waa jeexagul woon parce que maa ngi koy dégg parfois live am yi dama koy faral di ko suivre mu naan euh, sama sous contrôle judiciaire bi li si des mën naa ko muñ amul problème mais. man seetaan naa live bi ba mu jeex son yu boobu Pape Alé deful lu dul relater les faits li nga xamante ne ni moom moo xewoon ci kër Ousmane Sonko euh, gis naa woon Jibi Gueye Ndiaye am na ñeneen ñu nga xamante ne ni jokkoon na ñoom ak euh, par téléphone. Mhm. ñu expliquer donc suñu tëbee tëb mu daal di bind message ci page Facebook am daan ne euh, fi mu toll nii de convoqué nañ ma dimanche. Mhm. te ñëpp xam nañ ni avant dimanche lañ ko lañ ko lañ ko jëli looloo lay wan rek fi ñu toll nii man état bi mhm. ak ñi nga xamante ne ni ñoo di justice si Sénégal euh, si si ban tànk lañu lañu lañu la ñu taxawee parce que nit ki mënuloo ko convoqué ba sàngam bés bi ñëwagul nga fekk ko këram dem jëli ko donc yow lan nga lan nga ragal ba tax nga gaawantu patam patamee ko yóbbuwaat ko ci koo xamante ne nii deful lu dul métier comme ni ko Oma waxee. bul fàtte nag nga baal ma bul fàtte bu mujj bi amul woon mandat d'arrêt hmm. te fi mu defaree pneu otoom lañ wax ne fa lañ ko fekk looloo lay wan ne rek mooy looloo lay wan ne fi mu nii ñoom moom dañoo contrôler lépp dañu contrôler nit ñi gis nga Assane mii parfois day wax loo xamante ne ni moom mesuré wul sax li mu wax njëriñ li mu am parce que mënuñu wax mënul wax ne léegi nañu defar nañu jàpp xeexle diw nangam dañ ko fiy tere parce que ku ko fi wax ñu ne la appel à waaw à l'insurrection la et pourtant 2011 si suba maa ngi lay liiral euh, ci rajo bi appel bi nga xamante ni nii euh, liiralaat ma ko bu dee jege na la président Macky hmm? Macky Sall moo ko ah. woote woon li mu waxoon 2011 2011 te jamono jooju lay wadd moo fi nekkoon amaana tey jii nii moo ngi nii euh, te le si page officielle am 20 juin 2011 à 22h30 mu ni j'appelle tous les militants républicains et les Sénégalais soucieux de l'avenir de notre pays et de nos institutions de venir nous rejoindre dans la rue pour faire, pour cesser le processus de monarchisation du pays. Le combat contre le régime se fera dans la rue. Ah lii la waxoon xam nga tey jii nii su fekkee ni yow loolu noonu sañ-sañ boobu yow non mais loolu la wax si page am la nekk. non non li mu dafa bind. dafa lire li ñu bind dama bind dama lire dama bindum nga xamante ni nii moo ko wax voilà soo yi dama suñu enquêteur maanaam passé nañ foofu ngay wax. nañ foofu ngay wax kii ñu dagg lii wax nii rek. Assane Diouf jël ñu ko mu ne lii diglu ngeen ma si ba pare. Assane wax moom son yu bëri a euh, ngi toogaat beneen yoon ñuy gis ko si otoom muy wax ni dañuy dem palais de loger ji ko te tey jii nii ku wax loolu noonu ñu jàppale tëj la ñoom genre lan lañu lan lan moo xew daal ba fi ñu nii lu xew ci réew mi rek ku toog léegi da ngay dem euh, micro trottoir sax koo dékk micro mu ni la damaa ragal du ma wax parce que mhm. damay bañ ku ma jàpp xam nga loolu tamit wax dëgg yàlla son yi vraiment doy na waar doy goo xamante ne nii doo sa comprendre en tout cas ñi ngi koy ñaanal moom moom Pape mhm. na bañ a def grève de la faim moom ak Ousmane Sonko yëpp parce que da ngay joxaat encore doole ñi nga xamante ne nii wala pouvoir bu ñu gën la gën la nësaxal wala gën gën la teg ay coono yoo xamante ne nii euh, doo comprendre lépp lu fi am rek tey jii nii mhm. jàppal ni 2011 waxoon nañ fi kàddu yoo xamante ne nii gën a garaaw yi fuuf la te deewul mhm. ñoom ñooñu peut-être mm, euh, ab Ablaye Wade peut-être bu fekkoon doxalin doxalee na nii mu nii ñu doxalee tey alaaji wax na ko ci suba an euh, son président Macky Sall doonul woon doon président ba tey muy am ay sañ-sañu di signé ay dëkk rek lu ne mu def macha allah jërëjëf ma jigéen Diop alaaji mhm. Pape bi ñu ko bàyyi bàyyeeg léegi yàggul. mu nekk sous contrôle judiciaire boo xam ne jeexagul sax ma jigéen koy fàttali. Mm. tey jàppaat nañ ko gannaaw live am bu mujj. Mm. jërëjëf doo may ma def hors sujet tuuti rek. oral euh, waaw dama bëgg def dama bëgg a def hors sujet tuuti <laughs> ci ci ci ci ci ci kiiwu kiiwu kii bi quoi maanaam dissoudre Pastef bi. Mm. ak euh, dissoudre Pastef bi ak jàpp Ousmane Sonko bi. ni ñu ko enchaîné quoi. man moo dama ci gis euh, dama gis leneen. leneen man dama jàpp ni. dañ ne téye nañ Ousmane Sonko. Mm-hmm. tas nañ parti bi ñu ne génn génnagul. Mm-hmm. bon léegi est-ce que nekkul ni nit ñi dañu war a lijjanti parti bi pour parti bi nekk buñ demee di ko lijjanti ñu wutal ko foofu numéro 2 maanaam koo xam ne moo war a représenter parti. Mm-hmm. est-ce que xamali ma la. waaw bu ñu leen di lijjantiwaat dañ doon wax ne c'est benn candidat rek lañ mu am muy Sonko. waaw ah, ah, amuñu plan B. léegi la fait que léegi ñu ngi lijjanti ji parti bi. Mm-hmm. Sonko moom mi ngi xaar. waaw est-ce que nekkul ni dañu lijjanti ji pour boo demee di lijjanti ji parti bi ñu lijjantiwaale foofu tamit. koo xam ne après. te jàpp nañu ba numéro 2 amee parti bi tas. ndax mën ngeen dajaloo est après loolu est ce que mënul indi ay négociation yoo xamante ni moom la ñuy négocier foofu pour parti bi mën a kii waat ñu xool kan la parti bi di présenter est du loolu ñu mooy li nekk ci kaw mais est que nekkul ni peut être mu nekk kii boo xamante ni euh, def nañ ko pour kii parce que ñaari problème lañ créé mm-hmm. aywa Sonko problème la parti bi problème la aywa waaw jaajëf kon loolu alaaj da nga ko ci doon ñambaas waaw dama doon euh, dugg ci mbiru Pape Alé Niang waaw man damay wax ni euh, journaliste la boo xamante ni ku xam li xew la. maanaam am na ay euh, kiiwam. yu muy jaar pour génne yenn xibaar. am na source quoi. waaw mais Pape euh, man damay wax ni pareen saa yi il faut que nga gën a ñor. ñi nga jàkkaar lool. nga gën a ñor waaw. parce que man parensaay damay mooy mooy li ma wax Karim Xurum Xaab euh, parfois nga gën a ñor ñi nga xamante ne ñoom nga jàkkaar parce que tamit nit buy wut pexe yow it da defi pexe. Hmm. en l'instant même même bi nga xamante ni moom la Pape Alé doon joxe kii hmm. xibaar yi euh, man jàpp naa ni bu du toon jëmmi Pape Alé. moo toog di wax loolu problème du am. ah waaw waaw jëmmi Pape Alé influence la. waaw Pape Alé bu amoon keneen. ku toogoon mu koy jox xibaar yi. moom mu nekk nekkut jëmmam duñu ko woo gëw ma ni dinañ woo kooku te bu boobaa li mu bëgg a jàllale dina jàll. maanaam pare saa il faut wut tamit yow say stratégie parce que euh, gars yi maanaam ni gars yi def rek. ba créer pexe ku filmer parce que li ñu xam nga Pawal dafa wane fii. Mhm. kee bañ ñu filmer ko. kon kañ bu ñu toppee logique bi kee di filmer moo nekkut ci yoon. Mm. bu ñuy bañ wane. waaw dégg naa la. <laughs> maanaam kee nee nañ ñu def kële dara amu ci. waaw waaw fii filmer nañ. waaw kii day filmer ñu tere ko filmer ah. waaw. léegi yow nga jàpp kiy wane ba sax caméra bi defoon ci kaw këram alaaji ñu mën a jël mbuus takk ko ah léegi loolu <laughs> waaw la waaw ba jël mbuus mi ne waaw jël mbuus bañ mbuus ma filmé naka yow doo filmé te di filmé la <laughs> caméra filmé <laughs> yaa ngi bañ mbuus caméra la ah. léegi yow wane nañ la fooy takkee filmé fii waaye kii di filmé kooku moom am na dëgg ci ki mu doon filmer léegi tamit nga dem jàpp kuy wane xanaa ku filmer ba noppi kañ di nga wane. ki filmer daa wane sax ba moom mu mën. waaw ñaar ku filmer da ngaa pare pour wane de. <laughs> <laughs> waaw léegi loolu booy eh, li nga xam ne mooy mbir mi mais Papaale. Mhm. Euh, man ni mu parce que bi ko gars yi jàppee première fois mu génn la waroon génne beneen stratégie. mooy euh, du moom mu arrière. mais aussi tamit mu am ñeneen ñi muy jiital ci yenn yi. journaliste la nag. waaw d'accord mais journaliste la mais ba tey mi ngi def métier journaliste am na ñu bari ñoo xamante ni bi génnuñu te ñoo yore lépp. Mhm. nga defee ñuy génn di présenté ñi ñoo ñooy ñooy def lépp. am na ñoo xamante ni bi ñu ngi nekk ci ñooy togg lépp. Mhm. li am solo feeñ ngi amut solo. si si yaa ngi dégg. Mhm. donc moom loolu waroon na ko def pour sécuriser bopp parce que tamit pour combat bi muy combattre. mu gën a mën a di ko def parce que bu ñu ko téewee tey mënatu ko def mm-hmm. maanaam dafa mel ni fi mu toll ni téere bu ubbu mm-hmm. wala rajo boo tëj mm-hmm. waaw waaw te wartoon a demee noonu donc loolu mooy li nga xamante ni bii man bu ma ko conseillé loolu laa ko doon conseillé que li muy def amal na nit ñu bari solo bañ koy bàyyi xel tey it ni mu le mu am solo moo tax tolof tolof yi ko ciy dal di ko ci dal. léegi nag bi mu génnee rek waroon na mën a xoolaat beneen système bu muy liggéeyee. boo xamante ni bii tey moo koy permettre li muy def moom dana jàll. parce que tey bu fekkoonte ni def fa teg supposons mu teg fa benn journal ñu teg fa ma jigéen mu ñëw di wax li nga xam ne mooy kii. ok dañu naan ah ma jigéen koy wax. duñ koy jëmmi Pape Alé ji mu toog moom di ko wax. loolu mooy problème mais alaaj li mu génn léegi man gisuguma benn discours bu mu def. boo xam ne xaw na sax man ne la du du gën mais dafa nekk ci diggante boo xamante ni bii rek euh, jamono jooju euh, bokk na ci ñi nga xam ni euh, boo ko kiiwee day safal mbir mi. Mhm. maanaam mi ngi mel ni tey xam nga lii Walfadjri di wane bañ mhm. indiloon ko ci problème. Mhm. pourtant réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy wane. kenn faale wu ko. du dëkk. Hmm. mais jëmmi Walfadjri ki koy wane. Hmm. est-ce que nga. Hmm. moom moo moo taxit. mais internet bi bi ñu ñëwaatee wutuñu pexe. internet bi sanctionné nañ leen. ah maanaam données mobiles yi dañ ko arrêté. données mobiles yi téléphone waaw ah, waaw d'accord waaw mais mais après loolu lañ leen sanctionné ñoom ñoom ñu ngi wut pexe mais dama ne. xam nga de demuñu ci ñoom daal ne kii bi tëjal. wala bu ko loolu. waaw mais Walfadjri teewut bi yoon. bu mais jàppoon fa lañ jëm. ah fa lañ jëm bi waa mais mbir yi kii la rek. affaire yu ay jéego la rek. Mhm. maanaam fi ñu tolloon day gën a avancé parce que nit moom bu jëlee dara bu leen wax waxuñu bu leen bu leen ree bu leen ree oh, ah, ni ngeen di xoolee dee leen gëmm. dee leen def mm-hmm. maanaam mbir mi day gën a yéeg di gën a yéeg di gën a yéeg. yaa ngi dégg daal yaa ree hmm. yooyu yëpp. saa xam nga maanaam mbir yi day kii quoi maanaam luy dox la quoi. saa tey waaw. c'est vrai parce que am na ko xam ne. loolu ree lan ko ree lan ko jàppee. mais mais yooyu la mbir yi di loolu la mbir yi di demee. loolu la loolu loolu mooy loolu mooy mbir tey nit ki plus lay demandé man par exemple ma wax ko xale yu jigéen yi nekk ci internet bi amee ay abone euh, xawa a summeeku. xaw a summeeku. abone yooyu dañuy ñëw taxaw. Mhm. danga nga xaw a summeeku def nga lu xaw a doy ñu taxaw di la seetaan bu yàggee dañ lay yokkal. maanaam gis nga boo yokkut dañ lay bax say vidéo dootul dox léegi ndaw si day jékki-jékki fekk mu ngi doon yem ki day jékki-jékki gën a sol lu gën a seere mm-hmm. ñu ñëwaat yee yee yee yaa ngi dégg bu yàggee loolu dootu lañ koy dañuy bëgg nga def plus plus maanaam dañ lay commentéeral pour ngay dolli plus mm-hmm. loolu yu mel noonu nit ñi ni ñu toppee seen bakkan moo leen di indil la plupart ñenn ñi nga xamante ne bi dañuy def ay ngóor jigéen dañuy dem ba tollu fenn fi ci wàllu mbon caay-caay mhm. maanaam looloo leen di yóbbu ñu yegg ci yenn dérive yi am na barrage yoo xam ne bu ñu ko jéggee rek musiba lay alaaji daf maa daf que ñëpp xam nañ ni 2011 euh, euh, Pape Alé Niang bokk na ci ñi doon gën a indi euh, teg place ki nga xamante ne ni moo di président Macky Sall est que nekkul du tamit genre loolu noonu ñoom loolu la ñuy xalaat bañ yokk pouvoir ki nga xamante ne ni moo di parti Pastef moo tax mais bu ñu ko jàppee dañ ko yokk pouvoir xanaa man man dama jàpp ni jàpp gu bari gi sax dool li doole ñee la léegi dama lay jox tey benn exemple xam nga man des fois lu tax may lu tax may am problème ci réew mi ah mooy tey Sonko li ne femme bi daka photo ñu nangu portable bi ñu woo ko ci jiñ ko sàcc lii dalu fi woon Barthélemy Dias Bart am na benn jamono mu ne daa am ñu ko doon espionné ba am ñu ci xewoon Barthélemy xam nga guerrier la ñëw jëngu ne bu amatee mais est-ce que dafa tax benn yoon ñu jàpp Barthélémy Dias yóbbu wala ñu jiñ ko sàcc wala ñaari nit yi ñoo yemul man des fois problème boobu laay am maanaam man ak yow dañuy bokk def benn bàkkaar bàkkaar yi yem mais man ñu mën na cee daan baal la aywa léegi lan mooy sama différence ak yow <coughs> jaajëf Omar mi ngi noonu kon suba ak hmm. jàmm ànd ak dogalu borom bi am na benn vidéo bu ñu gis ñu génnewaat ko ci xalifa man bi ma ko gisee sax euh, waa xalifa dama foogoon bi ma ko gisee lu bees laa ko tegoon mais bi ma déggee mu man ngeen doon wax damaa noppi damaa yaru léegi joxe naa ndigal xeex leen jëfeen face ak nguur gi ndek yow lu yàgg la génnewaat nañ ko ak waa ji ko fekkoon États-Unis d'Amérique mm-hmm. euh, filmé ko ni ko da ngaa da ngaa da ngaa trahir Ousmane Sonko mm-hmm. suba ak jàmm dinañ ci ñëw incha allah jërëjëf euh, son yi bu Diop euh, ci victime du net bi am na solo bu baax a baax Aïcha ñu jaajëfal ñi nga xamante ne nii rek ñoo toggoon jàkkaarloog seen i télé di ñu suivre ak ñi nga xamante ne nii ñoo di internet yi ak seen i commentaire ngi leen di remercier bu baax a Mamadou Diouf Abdou Top ak Abdoulaye Diallo di ñaanal nag eh, ajaratu Biti Mbuup ak Soukay Mbaye eh, di ko wax prompt eh, rétablissement jàmm nga dellu siwaat fii ci takku show incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi. KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak butik solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show